alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi la ilaha illallah فانشقوا عن الهوي أنا لا ولك التي تتجلى بها ورود الحقائق السلام عليك يا من فاتيته للبديع جاد برات السلام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 kooku lu ko wasal wàcc na balañ cee wax nettali dara du qul wallahu ahadu nettali ay asbaab yoo xam ne jiitu na qul wallahu ahadu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na qul wallahu ahadun taadilu al quran manam ku jang qul wallahu ahadun ñetti yon yalla may nako yolu ku manki ku ku ku ku jeexal kamil ni ku jang qul wallahu ñetti yon amna yolap ku jang kamil bi bam jeex yonent waxna sallallahu Alaihi Wasallam, sallam mu ne wallahu ahadun ku jang benion, yon yalla may na la yolu kep ku musa jamu yalla ca dale ko ca aadama ba léegi ku jàng qul wallahu ahadun benn yoon yàlla may na la yoolab ku jaamu yàlla ak ku musta jaamu yàlla ca aadama ba ci yow ko jàng léegi nee na qul wallahu ahadun boo koy jàng booy tëdd tëddee sa ndeyjoor jàng qul wallahu ahadun téeméeri yoon walla benn yoon nee nañ bu yowmal qiyaamati jëwee yàlla def nan la wet gi nga tëddee woon di tariqul wallahu ahadun jaaral ci wet boobu rek demal janna de mu ne qul wallahu ahadun ku ko jàng benn yoon mel na ni jàng nga sulusu alquran boo ko jàngee ñett yoon mel na ni jàng nga alquran yépp am nga yoon boobu yonente mus na taxaw ak jibril ñu seen abu zarin muy ñëw jibril ne abu zarin na nga nele di ñëw yonent ne ko ay yéen malaaka yi da ngeen xam abu zarin mu ne ko malaaka yi abu zarin niñ ko xamee ci kaw xamee woon ko ko ci suuf yonent ne jibril loolu lu ko ko may mu ne dafa tuuti ci boppam te dafa bëri lu mu jàngul wallahu ahadun loolu ko may loolu de nee na am na benn ilimaan ju nekkoon madinatul munawara daan jiite nit ñi bu jullee bu jàngee saar bi muy war a jàng ba pare teg ci xul wallahu ahadun maam moom yi daal di mer ne loolu daal bëri na na jàng xul wallahu ahadun rek wala mu jàng saar wi rek waaye jàng saar wi di jàng xul wallahu ahadun loolu moom duñ ko nangooti ñu yonentu oo ko laaj ko ne ko lu tax ngay def loolu mu ne ko man dama sopp saar wi rek mu ne ko sopp yuñ ko sopp yóbbu na la aljanna de yonent nekk na Tabuuk ci xare xare Tabuuk benn bés mu koy rek gis asamaan si jant bi amul ceeñeer amul dara lu wone ne jant bi dan fenk mi ngi nekk nii yépp soppeeku jaww ji yépp itam soppeeku de yonent laaj Jibril ne ko lii lan la mu ne ko muawiyata ibnu muawiyata ca madinatul munawara moo dee moom la yàlla ebal malaaka yi juróom-ñaar fukki junne malaaka ñëw ñëw di fekkee julleem boo buggee ma dindi xeer yi jaar sa digganteek madina ba nga jàkkaarloog moom jibril dal di koy xàllal xeer yi nekk diggante madina ba Tabuk yonent ci jàkkaarloog niw bi jullee ko loolu yëpp ay ngëneelu sa qul wallahu ahadun ci la bokk de mu nekkul qul wallaahu ahadun googu nag am na ay tur yu bëri tur yu kasra wa kasratul asmaa yi te dullu ala sharafi al musamma allahu ci bo yàlla ci boppam am na ay ay tur yoo xam ne yonentu wax ne man ahsaaha daxala aljannata tur yooyu bokk na ci tur yooyu moo nekk nii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 الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yonent wax ne man ahsaaha daxalal jannata sa sa saaru saar wi ñuy jàng tey lum ñuy xamal mooy borom tur yii mooy kan mooy kan ci jëmmam mooy kan ci ay meloom mooy kan ci ay turam mooy kan ci ay jëfam su ko defee tur yooyu ñu jàng yépp ah, moom mi tamit alquran ni tour yalla yi mel tam non la alquran am ay tour yo xamne ne da fay tektale sel ak tour yi nga xamne ne lañuy nara jang bokku na ci tour yoyu yalla tuddee na bopam yalla na bopam ne al al ikhlas, sura bi dinañ ko tuddee al ikhlas, al ikhlas moy lan selal selal. selal Moy lan moy lo xamne ikhlas dafa melni tan ak selal dafa melni lu bari lu lu jaxasoo nga war ko sel nga war ko tan genn la ci gëna sel genn la ci gëna sel su ko defé lolu moy ikhlas yalla nek na fi yalla yu bari nek nañ fi ànd ak manata uzza ak yenen yalla léegi nag yow jullit bi na nga tànn tànn bi nga xam ne moo gën a sell muy yàlla su ko defee waxtu woo defee loolu nag mooy na nga xam ne tànn nga koo xam ne lim la sant ci moom ci boppam mooy ne boo koy jaamu na ko jaamu itam jaamu goo xam ne jaamu gu sel la wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina moo tax yonent yàlla yàlla bu am na ay jaamam yu tànn yu mu tànn wax ne waaye siina na ay jaamam yu mu sàll la yoo xam ne ñu sell lañ walla ñu yàlla sell lañ bon tànn bon bon sellal bokk na ci tur yàlla yi de sellal ko ba nga xam ne amul benn yàlla boo xam ne nawleante naag moom ci dara yàlla moo amal beneen yàlla bu dul moom amalut yàlla moo bind yàlla moo xamle yàlla mooy wërsëgal loolu yëpp yàlla moo koy def boo koy def nag di tudd yàlla di jublu ci yàlla di ko jaamu na ko duggee sellal ci li ngay def amoo dara loo xam ne li ngay defal yàlla sàkku nga ci lu dul jëm yàlla sàkkuwoo ci nit ñi gis ne yaa ngi koy def sàkkuwoo ci ku la tagg sàkkuwoo sàkkuwoo ci ku la jox daraja sàkkuwoo ci lu dul rek da ngaa bëgg a àgg ci ngërmande yàlla te itam nga xam ne yàlla moom ngay def ngay defal loolu yàlla jar na loolu ndax koo xam ne moo la bind nga tukkee ci ñàkk ba pare defaral la lépp wërsëg woo xam ne war nga koo soxla ci àddina bon kooku bu la waxee ne sellal sellal su ma nekk te jaamu ma te sellal sa jaamu gi ci man bu ci dugal keneen bu boobaa loolu jottali na la li nga xam ne moom la war a jottali nga la nga mucc de waaye nag danaa jaamu yàlla damay sellalal yàlla waaye bëgg naa ci jaamu gi lii leneen loo ci aj rek bu boobaa loola ngay jaamu yàlla nee na inna allaha agna agniya min ashirki képp koo xam ne ko boole boole nga koog yàlla rek di jaamu yàlla bàyyee na la sa njaamu gi ndax bëggu ko booy jaamu ngir bëgg nit ñi gis la booy jaamu ngir bëgg nit ñi tëgg euh, euh, tagg la booy jaamu ngir bëgg nit ñi fonk la booy jaamu bëgg nit ñi ragal la booy jaamu bëgg nit ñi ñëw sëriñ bi ñaanal ma génn àddiyee jox la loolu yépp bokkut ak wa maa umiru illa li yaabudullaha muxlisiina lahu diina jaamu yàlla rek sellal jëmee ci yàlla te yàlla tax laa jóg su ko defee bu boobaa lépp loo xam ne yaakaar nga ko ci ngistal yàlla dina la ko fay ndax moom rek moo am fay ndax ki ngay yaakaar ba tax ngay ngistal ngir moom lam am yépp ba mu koy ngistalal yàlla moo ko ko jox te yàlla moomu am na yàlla nag nee na nekkal ma suma jaam man yalla ma nekkal la waaye nag nekkal googu nag na nekk rek yalla yalla kese kese amu dara loko ko ci loko ci booleet yalla moomu nag tuddee na boppam ne ikhlas ndax saar wi noonu la tudd bokk na ci tudd saar wi at-tanzih mooy sellal ak tajwid mooy raflal ak tawhid mooy bennal yooyu daanaka benn maanaa la ku sell la yàlla ku ku rafle la ci bokale àndaaleeg jabar ak jigéen ak yep, dom ak yépp yalla rafle na ci lolu yalla amul lolu de motax ben benn suuf yanke ñëw na ci ben way ñew na ci Omar ibn Khattab Omar ibn Khattab ne ko naka nga def mu ne ko mang fi rek di bañ deug Omar ibn Khattab ne ko nga ne mu ne ko mang fi di bañ deug tek ci itam mang fi di bëgg fitna lool tek ci mang ci di bañ Eh, eh, maa ngi fi itam di ragal di bañ taseeg taseeg yàlla mu ne naa li ñëw mu ne ko déngali waa ji wax mu ne lu mu wax mu ne mi ngi fi rek di bañ dëgg di bëgg fitna di bëgg di di di bañ jihaad wala bu leen ko jàppee noonu fàtte naa ko waaye mu ne mu ne naa li ne ko mën tamit loolu lay wax di mu ne ko looy wax mu ne ko dama bëgg dama bëgg dama bañ dëgg dama bëgg fitna dama bëgg euh, dama dama bëgg àddina dama bëgg li ci àddina yëpp dama koo bëgg dama dama bañ yër damay daw yërmande yàlla damay daw yërmande yàlla mu ne ko loolu wax yooyu nu muy tekki mu ne ko dama bañ dëgg mooy dama bañ dee ku nekk xam na ne dee dégg la te yépp danañ dee mu ne loolu tax mooy dama bañ dëgg damaa bëgg fitna yàlla wax na ne seen doom yeeg innama awlaadukum innama wa awla fitnatun fitna la te loolu laa gën a bëgg dama bañ yërmande yàlla ndax buy taw fekk ma ci biti damay daw dugg ci kër gi te taw yërmande yàlla la Omar ibnu Xataab ne ko yàlla bu yàlla dund yàlla bu Omar ibn Khattab dund fu Omar fu Ali ibn Abi Talib nekkut de bon yàlla bokk na ci ay turam ne euh, tajwiid kuñ sellal la ku ku rafle la ci àndaale de yàlla toog bokk na ci ay turam tawxiid mooy ku la ci mooy ku la ci bokkaale yàlla tuddee na boo saar wi tudd na an najatu ndax bokoy jang yalla daf lay musal ci safara saar wi tudd al wilayatu ndax boko takko di jang di nga nekk yalla ndax kep ko ci rek di ko yema kam manay bo maanaa manay rek da nga bok ci wali yàlla yi saar wi ko tuddé an nisbatu ndax li tax saa wi wàcc nisbatu dañ ko tuddee nisbatu de ndax moom la Quraysh yi wala yahud yi wala nasaraan yi moom lañ laajoon yonant saar wi danañ ko tuddee almaarifa ndax képp koo xam ne xam nga saar wi ak lim làmboo xam nga yàlla te boo xamee yàlla rek am nga aljanna fii ci kaw suuf ndax aljanna am nga aljanna te deewoo ndax aljanna mooy lan mooy lu dëppoo ak sa bakkan ba sakel sa xel d'accord ci loolu mooy aljanna dëppoo ak sa xel sa bakkan dëppoo ak sa bakkan sa xel d'accord na ci loolu mooy aljanna boo xamee yàlla xam nga ne am nga koo xam ne ak sa ndax nangu nga ci rek la sa bakkan bëgg na ko sa itam nangu na ko ndax doomu aadama lu mu gën bëgg ci mooy ñaari yëf yii mooy na am jàmbaar joo xam ne nit koo xam ne ku hóor koo xam ne lum liggéey ñëw dénk ko ko kooku nit soxla na ko nit soxla na itam koo xam ne waxtu wu amee soxla rek dem ci moom wax ko ko mu defal ko ko te loolu képp koo xam yàlla xam nga ne loolu mooy yàlla yàlla loo liggéey lu mu bari bëri boo ko dénkee ba la ko dencal jëm ci bés boo xam ne bés boobu danga nga ko soxla yàlla lépp loo am soxla lum rëy rëy rëy rëy tàllalal sa xol rek jëm ci yàlla ñaan ko yàlla dina la ko may bu la mayee nga gis fii ci àddina baax na bu la mayee denc la itam baax na ndax yàlla dina nangoo ñaan ñetti yoon dana nangu ñaan jox la léegi li ngay ñaan dana nangu ñaan itam musiba mu doon dal ci kaw mu delloo ko ndax ñaan googu dina la dencal ñaan ëllëg ci àllaaxira dañ doon ñaan démb sa àllaaxira mi ngi nii dama la ko dencaloon ba tey ah yàlla mënoo moo la dencal yëpp yëpp mënoon nga ma koo dencal de su ko defee bon yàlla nee na bokk na ci yi nga xam ne war nañ ko bokk na ci yi nga xam ne digal nañu ko ne nañ koy ñaan de ndax udoo nii astajib lakum wa ida saalaka ibadi an nii fa inni qaribun ujibu daawata daay ida daani mu ne yàlla mooy jamaal lépp lu taaru rek ci taaru yàlla bi la bàyyee koo saar bi mooy jamaal de bon mooy saaru mooy saaru rafet ndax lu rafet rek ci yàlla la bàyyee de saar wi danañ ko tuddee alkamaal ndax lépp loo xam ne dafay matal yàlla rek dafay mat rek ci la bàyyee koo de wi danañ ko tuddee almuqash mooy saar woo xam ne dafay setal nit ci bàkkaar ak setal nit ci naafeq ak bo setal nit ci bokkaale yàlla booy jàng qul wallahu ahadun yàlla daf lay setal ci bokkaale yàlla daf lay setal ci euh, naafeq yàlla daf lay musal ci safara de waa dañ ko tuddee almuawisatu ndax ci saar yi ñuy defee taawus la ci saar yi ñuy mus muslo yàlla ci la bokku de dañ ko tuddé al asas saaru fondement ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam waxna ne usisa al ardu was wassamaawu wal arshu wal kursi ala qul wallahu ahad yàlla waxna yonent waxna ne man yàlla asaman ak suuf asaman juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar ak aras ak kursiyu yalla ko mom ci kaw qul wallahu ahad lolu nak mo lay jangal ne adina bi ñaari yalla munu ci am ñaari yalla munu ci am ndax bu ci fekkone ne yàlla ba muy tabax asaban ak suuf ak arasa kursi am na fu mu ne ken nek bon momrek rek moko tabax bon ñaari yalla munu fi am de ndax ñaari yalla من تام في سادنا بيتا دو عمل تي الاخره لو وحنا يالا واخنا نيو تي القران لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا دو القرآن لا يلا كو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لولو موتاخ نياري يلا من تأم وخ وخي منطق لا قضية منطقية لا li nga xamne bo demé demee yi bu ñuy yema deugal dara dañuy ut naan thèse synthèse antithèse thèse antithèse synthèse lolou lañuy wax waye yàlla mo dafa ñëw rek ak ci thèse bi joxewul thèse joxewul antithèse dafa ñëw rek jox la li nga xam ne nga soxla ci wax bi law kaana fihima alihatun illa llaahu la fasadata mi ngi mel ni wax lépp nit dafa yëngatu nit dafay dund te lépp luy dund dafay yëngatu bon nit dafay yëngatu bon mantiqi yi manaatiqa yi bu ñuy ut dara foofu lañ koy jaaree indi muqaddima indi taali indi na natiija loolu mooy manaatiq yi nga xam ne bu ñuy bëgg a dëggal dara foofu la jaaree pour dëggal ko waaye yàlla moom ba mu bëggee wax dëggam gi daf ko wax rek de benn yoon law kaana fihima alihatun illa allahu la jeex na tàkk su ko defee nag yow yow nit ki yàlla boole na la ci liggéey bi ndax da nga xalaat ndax asamaan si bañ ko tabaxeeg léegi mës naa yàqu sa xel def nan la mës ta yàqu suuf si bañ ko tabaxeeg léegi ndax mës naa yàqu sa xel daf lay jox mën na daf lay jox ne mës ta yàqu bon nag li yàlla wax na illallahu la fa sadata mu lay indil thèse antithèse synthèse jaru ko na la jox thèse bi rek antithèse bi na la jox synthèse bi rek mu jeex su ko defee nag yow ci sa bopp yow nit ki yaay xalaat ndax loolu dëppoo na ak sama xel ak déet wala dëppoo na ak li xew boo seetee li xew mooy ne asamaan ak suuf bañ amee léegi kenn musta dégg ne yàqu na fenn asamaan yàquwut fenn suuf yàquwut fenn moo tax te loolu ñaari yàlla ñaari yàlla mënuñoo amal loolu ndax su ñaari yàlla amoon mënoon am lii bu boobaa dafay am loo xam ne ña lépp loo xam ne dafa firiwante ak lépp loo xam ne dafa safaaw dafa safaanante lépp loo xam ne dafa safaanante ñoom ñaar mënuñoo amandoo ci même waxtu waaye itam mënuñoo ñàkkandoo ci wenn waxtu ala fokk ñoom ñépp kenn am rek kenn ñàkk am waaye ñoom ñaar ñëpp ñu amandoo wala ñoom ñaar ñëpp ñu yëkkandikoo ñu yëkkandikoo loolu moom <clears throat> mënta am ci benn xadiya lii dafay am rek léeg bañ faa nekk wala lii nekk ci rek léeg-léeg bañ faa am ni ki lu demee ni ki feebar ak wér feebar ak wér duñ booloo ci nit ki ci même temps alors bu feebar ñëwee wér dafay dem su ko defee loolu moo tax bon am na ay ci sukkandiku am na ci manaatiq yi ay sukkandikuwaay yoo xam ne bu la waxee ne ñaari yëf yoo xam ne dañoo safaanoo ñaari yëf yooyu mënuñoo bokk am ci benn waxtu waaye ñaari yëf yooyu duñ bokk am e ñàkk ci benn waxtu ala fokk benn am benn uteeg moom benn am benn uteeg moom dama mar mara moo fi nekk dana dëñ ndox moo koy dindi yëkkatiku na waaye mar naa ba pare te maa ngi maa ngi naan ba pare mar naa loolu mënta am dama xiif lekk daf koy dindi bu lekk ñëwee rek xiif dem waaye xiif ak lekk booloo ci benn saasi loolu mënta am bon bu ko defee nag bon ñaari yàlla itam yoo xam ne ñoo fi nekk ñoom ñaar mënuñoo am am na nag loo xam ne am na mooy loo xam ne dafa firiwante loolu moom mënuñoo bokk amadoo ci même temps waaye mën nañoo bokk ñàkkandoo ci même temps lu demee ni ki ñuul ak weex nit benn mu ñuul wala dara benn mu ñuul benn mu weex loolu foog mu am waaye nag mën naa bañ ñuul mën naa bañ a weex xonq bu ko defee ñoom ñaar mu mënuñoo ànd nekk ci même temps waaye ñoom ñaar mën nañoo yëkkatiku leneen ñëw remplacer leen kii dafa ñuul kii dafa weex bu ko defee beneen waay ñëw fa ak ak ak xonqaayam bon ñuul ak weex yëpp dem nañ xonq ñëw na place am ak bu ko defee couleur yëpp mën ngeen la seetee noonu de loolu wute na ak loo xam ne dafa nekk lu safaanante safaanante mooy dëddaani mooy euh, dundu dee feebar wér xiif lekk yooyu yëpp benn yi ñëw rek benn dem waaye ñoom ñaar ñëpp ñu bokk nekkandoo loolu mënta am ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ñàkkandoo loolu mënta am loolu moo tax nag ñaari yàlla mënta am ndax ñaari yàlla mënuñoo bokk moom àddina bi ni nga xamee ne ñaari ñaari jëkkër mënta am ci jigéen ah noonu la ñaari yàlla ñàkkee ci àddina bi de ñaari yàlla mënta am ci àddina bi benn yàlla rek moo mën a am de ndax su fekkoon ne ñaari yàlla am na bon lii dina am ndax ñaari yàlla yi bu ñu amee ñoom ñaar ñëpp dañuy ànd déggoo liñ bëgg def yëpp ñoo ciy déggoo ñoom ñaar su ko defee bu boobaa yàlla du fa amati ndax dañuy déggoo def lii màggeew bu boobaa kan moo ci yàlla ji kenn xamu ko su fekkee te itam loolu mënta am ndax ñaari nawle munuñ waxtu wu nekk rek ñu d'accord ci yëf ci loolu ñu d'accord ci benn yëf rek waxtu wu nekk kenn du uteeg sa morom loolu mënta am ci diggante ñaari nawle asamaa nag diggante ñaari nawle yoo xam ne dañoo foora foora foor ba doon yàlla du mën waxtu wu nekk rek yàlla yi di d'accord ala fokk tey yàlla ji d'accord ci lii yàlla ji d'accord ci lii loolu moo tax ñaari yàlla mënta am ci kaw suuf si ndax boobaa te naqut dafay am yàlla ji dana bëgg lii yàlla ji bëgg lii yàlla ji ne lim bëgg eh, mooy am yàlla ji ne lim bëgg mooy am yàlla ji ne nit ki jógal yàlla ji ne ko bul jóg toogal yàlla ji nit ki def defal lii na taw yàlla ji ne bul taw bu ko defee gàllankooram loolu yëpp mënta am ci àddina ndax su fekkoon ne am na te da fay am bu amone dara ci àddina bi du taxaw nam wara taxaye bon dara du nek ci àddina bi sax bu ko defé nak ndax ñaari yàlla yooyu danañ d'accord wala duñ d'accord su fekke d'accorduñ utu outé mana na man nañoo d'accord d'accord nañ ci nit ki manam maanaam nit ki genn walu gi ci lay atté genn walu nit gi ci lay atté yow genn walu gi ci dess ya ci atté su ko defé bu boba yàlla amut ndax nit ki ci boppam ki ñu àtte amut ndax séddoo nañ ko ñoom ñaar buñ ko xaajee séddoo ko nit ka amatul de bon bu ko defee bon ja ja euh, wéetal yàlla mënta nekk tukkee ci jaam jëm ci yàlla ndax jaam mënta wéetal yàlla yàlla rek moo mën a wéetal boppam su fekkee ñaari yàlla yi d'accord nañ waaw su ko defee yàlla ji lii la bëgg ci kii waaye yàlla ji lële la bëgg su ko defee ñoom ñaar xëccoo mën naa am seen diggante bu xëccoo mën a amee seen diggante xeex mën naa am seen diggante bu xeex amee seen diggante kenn mën naa gañe bu kenn ki gañe jeex na kële du watul yàlla ndax yàlla kenn du ko gañee moom mooy gañe su fekkee gañe nañ ko moom itamit mën naa def mën naa dem defi ay pexeem ngir ñëw fayu si bu ñëwee fayu si itam mën naa gañe bon nag yàlla ju ñuy gañe ak yàlla juy gañe ñépp kenn du ci yàlla ndax bu boobaa dafay lott te yàlla warta lottu yàlla am na kàttan loo xam ne lu ko neex lu ko neex dana ko def te sukkandikuwut ci kenn yàlla li muy def amut sabab doo ko tax li muy def amut sabab doo wax ne lii moo tax lii moo tax wala lii la ci jublu wala lii la ci namm lii la ciy sàkku loolu yépp amut ci yàlla amut sabab li sabab si yaa tax nii amut sabab si yaa tax nii amut sabab si yaa tax lii am loolu yépp ci ñun rek la em ñun doomu aadama yi waaye amut ci yàlla li am ci ñoom li am ci moom mooy alfaalu lima yuridu amut fenn fu mu ko aj aju ko ci sabab aju ko ci dara buy yërmande buy yërëm jaamam dafay yërëm rek parce que jaamam yërmande la soxla ci moom buy bëgg jaamam dafay bëgg rek parce que loolu la jaamam atte ci moom amut dara loo xam ne mooy sabab loolu yàlla di defal jaam yàlla moo koy def rek ci képp kattanam de su ko defee ay sabab ak ñàkk sabab loolu yëpp ci ñun lay bàyyeekoo ci nit ñi bon loolu moo lay xamal ne ñaari yàlla munu fee am benn yàlla moo fi mën a am ndax benn yàlla moo mën a samp sàmm sàmm lii yëpp ba ko so ba mu ko sosee sàmm ko ba léegi dara sotteekoo ci dara dara sotteekoo ci de mu ne yàlla danañ ko tuddee euh, alquran ji danañ ko tuddee al muhassinatu ndax képp koo xam ne da koy jàng yàlla daf lay musal ci fitnaay àddina ak fitnaay àllaaxira de sarwi wi danañ ko tuddé samadu ndax ndax min ngi ci biir saar wi danañ ko tuddé al asas moy ñoon wax légui ndax moy ciosanu diine sarwi wi danañ ko tuddé yàlla yonente wax na ne ussisat as samawati sabu wal arduna sabu ala qul wallahu ahad lolu motax ñaar yalla bu ñu fe nek de benen bi ay almaniatu ndax lan dafay musal nit ci fitnaay xabru ci fitnaay bàmmeel ak mbugalam safa safara de saar wi danañ ko tuddee al muxtasar ndax buñ koy jàng malaaka yi dañuy ñëw fekkee si ko saar wi danañ ko tuddee al munafira ndax fuñ koy jàngee seytaane yi dañ fay daw saar wi danañ ko tuddee al ndax ku koy jàng yàlla def lay musal ci safara yàlla daf lay musal ci bokkaaleeg yàlla de daal saawir dañ ko tuddee almuzakkira ndax dafay fàttali jàmmi yàlla yi sell ak tawxiid ndax dëgg-dëgg tawxiid sell rek sell rek moo ko tax a jóg sellal yàlla sellal yàlla amaloo ko amaloo ko amaloo ko ndendal amaloo ko bokkaale amaloo ko xeet amaloo ko fu mu jógee yàlla yàlla rek la amul leneen de loolu la saar wi ñëw di la ko jàngal saar wi dinañ ko tuddee an nuur ndax dafay leeral xol te yàlla wax na ne allahu nuuru samawati wal ardi masalu nuur yi ka miskaatin lu bon loolu yëpp ñaar fukki tur yooyu yëpp wala fukki tur ak juróom-ñett yooyu yëpp danañ ko tuddee saarul ixlaas loolu dafay tegtale ne saarul ixlaas saar wu bari barke la ndax kasratul asmaayi te dullu ala sharafi al musamma lépp lu bari ay tur rek dafa fekk tedd na moo tax tur yi bëree noonu de loolu benn fasal la ci fasal yi nga xam ne mooy jiitu firi saar wi de yonente sallallahu alayhi wa wax na ne ku bëgg nelaw ci sa kawlal nga tuddee ndeyjoor jàng ko wallahu ahadun téeméeri yoon mu ne fekkee bés penc ñëw na yàlla def naan la jaaral nii rek dugg aljanna de ut jaaral ci sa loxo ndeyjoor dugg aljanna yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam ku jàngal alquran ku jàng qul wallahu ahadun juróom fukki yoon yàlla baal na la bàkkaatu juróom fukki at waaye ci li yàlla baal na la bàkkaatu juróom fukki at boo ko jàngee téeméeri yoon yàlla baal la bàkkaatu téeméeri at ah, loolu mooy mooy saar wi sababu nuzul bi nag lu waral wàcceg qul wallahu ahadun mooy ne mbooloo ci waa màkka mbooloo ci waa màkka Quraysh yónni nañ benn délégation ci yónant ne ko demal wax demal waxtaan ak yónant mu ñëw ci yónant ne ko léegi say bokk ñoo ma yónni ci nee nañ naa ñëw waxtaan ak yow xam li nga bëgg lan la su fekkee da bëgg alal ñu dajale suñ alal yëpp jox la ko ba Quraysh yëpp yaa ciy ëpp alal su fekkee dangaa bëgg jigéen ñu tànn jigéen ñi rafet ñëpp jox la ba kenn du amati jigéen bu dàq jigéen ñi nga am su fekkee dangaa ngaa feebar ñu indil la pajkat ñu faj la waaye daal yi ngay def sonnal na leen yonent ne ko pare nga mu ne ko waaw mu ne ko bugguma alal bugguma jigéen bugguma nguur benn yonent bu yàlla yónni laa ma jëm si ci yéen indil leen tawxiid oo leen jëmee leen ci yàlla loolu mooy sama mission ci laa nekk amul leneen de yooyu ngeen di wax yépp soxla wu ma ko ci seen ci seen àddina bi de ba mu ko defee nag bañ waxee loolu yonent yonent bëgg a mer jibril ne ko dalal rek bul mer dalal rek dal di koy indil qul wallahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yuulad wala ñu ne wafdu najraan nasaraan najraan ñu ñëw ci yonent ne waaw sa yàlla ji ngay wax moom nu demee mu ne mu ne ndax ci ndax ci urus lañ ko liggéey ndax ci xaalis lañ ko liggéey ndax lan luy sa askanu luy sa askanu borom luy askanu yàlla bi ngay wax ak itam yàlla kenn la kenn googu nu mu demee yonentam bëgg a mer na ko bul mer danaa la indil tonton ngi ñëw de dal di koy wàcceel xul wallahu ahadun allahu samadu wafdu nasaara najiraan yooyu nanti ne leen yàlla kenn la ñu ne ko ah, yàlla kenn la waaye yow tamit kenn nga ñun ñëpp kenn ku ci nekk kenn lañ mu ne ko kenn ngi du loolu de ndax sa kenn ndax kenn ak yàlla gi dara jiituwu ko dara mujjuwu ko dara nekkut tak moom yàlla rek moo nekk suñ nekk gii sax dëgg-dëgg nekk ak yàlla rek la waaye du suñ nekk ñun ndax fu ñu jógee ak lu ñu am ak lu mën ba mën ko defal suñu bopp lu ñu mën rek ci yàlla lañ ko mënee lu ñu xam ci yàlla lañ ko xamee lu ñuy def ci ndimbalal yàlla lañ ko defee lu ñuy yaakaar ñu ngi ko yaakaar ci yàlla lu ñuy bëgg ñu ngi koy bëgg ci yàlla lu ñu bëgg a am ñu ngi ko bëgg amee ci yàlla te yàlla moo la koy jox gannaaw yow amoo dara ci sa nekk gii sa nekk gii itam nekk yàlla rek moo ko amal su yàlla nekkutoon doo nekk bon nag dara nekku fi lu nit war sukkandikoo walla lu nit war a doole woo lu dul yàlla de ndax moo tax yàlla melal na boppam ne huwal awalu wal axiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim loolu kooku moo yàlla amul lépp lu dul moom nag mbindeefu yàlla la yàlla ko bind bon nag gannaaw noonu la demee moom la ñu yàlla di jàngal ca ci saar wi ne mu ne leen tontu tontul tontul wax leen nekkul qul wallahu ahadun wala ñu ne yahudi yi ñoo ko laaj ne ko yow yonent sa yàlla ji ngay wax moom nu mel doq gi nu mel ñaata la ñaata la doq gi diisee ndax ci urus la ndax ci weñ gu ñuul la ndax liñ ko mën a en yëpp ndax dina ko attanam déet bu ko defee ñu war a xam nag ban lan mooy na nasabam ndax urus la ndax xaalis la ndax weñ gu ñuul la nu doq gi am nu tànk yi am te ko Quraysh biñ waxee ak yonent yonent ne leen dama leen di oo rek ngeen jëm ci jaamu yàlla moom kenn ñu ne ko yonent bu ñu dof loo ñu ngi am ñetti téeméer yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñett te suñ soxla yi ba léegi fajuwuñ nga bëgg ñoo yóbbu ci benn yàlla bon yàlla jooju wax ñu nu mel nu doq gi mel nu mbagg yi mel lu àttan attan ndax ñu mën a xam lu àttan ndax ñu mën ñu mën a ñu mën a dellu dellu ci moom de mu ne leen qul wallaahu ahadun yàlla kenn la de kenn ak yàlla googu nag moom la saak yi ñëw di jàngale yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa ne huwa moom luy nag huwa luy mbit tey mbit allahu yàlla ahadun kenn la li xew daal yow yonent nga waxal ko nit ñi ne yàlla kenn la huwa fii damiru sha'ni la damiru sha'ni mooy loo xam ne ci kanam lay dellu lu dellu ci gannaaw damair yëpp damairul mutasilaak munfasilaak mu jawaahirul la ak mufassila ak mudmara loolu yëpp boo demee dafay dellu ci li nga xam ne moo ko jiitu waaye damiru sha'ni moom ci liy ñëw rek lay wax si wala damiru sha'ni léegi rek la qul waxal ne huwa naka luy mbit tey mbit mbit mi lan la mooy na yàlla ki allahu yàlla ahadun kenn la yàlla kenn la rek mooy mbit mi de waaye du leneen de bu ko defee qul wallahu ak qul ñëw na yonent wax nañ waxloo nañ ko ne ko waxal kul nañ ko ko wax la woon ci kul yaa ayyuhal kaafiruuna ne ko kul yaa ayyuhal kaafiruuna tabat yadaa ñëw waxuñ ko izaa jaa nasrullaahi ñëw waxuñ ko ko ndax kul yaa ayyuhal kaafiruuna mu ngi doon dàggante ak nit ñoo xam ne ñu ngi wax ak moom ñëwal ñu jaamu yàlla sa at ñu jaamu sa yàlla ji at nga jaamu suñu yàlla at yàlla ne ko déedéet wax leen ne loolu du am de yaa ayyuhal kaafiruuna la aabudu ma na loolu moo tax kul jooju dañ ko cee war a jàngaale dañ ko ci wara jangale itam ndax nga xamne wax yi du yonent moko ko wax dañ ko wax lo su fekkone ne waxam kese la bon jarul mu wax xul def nan ya ayyuhal kafirun rek waye gannaaw wax nañ ko kul bon nga xamne decision bi baye ko ci mom ci keneen la baye ko ko motax munte dindi qul wallahu ahadun qul ya ya jaa nasrullaahi amut kul lutax ndax bu ko waxe xul bon dafa melni daf koy ñax ndax يونت بكو يالا تيغي تشونو بو ميتي بوبو ييب سيقول يا ايها الكافرون مو تيغي كو ليغي على فوك يالا دنا كو جوخ جائزه دنا كو نيهال نيهال بو خامني دنا دبو اك ليغا خامني موم لاكو سانت موتاخ بام كوي ماي مو ماي كو اذا جاء نصر الله والفتح فتح بو خامني فتح مبولم مراتب فتح ييب الفتح القريب والفتح البعيد والفتح المشاهده لول mu ngi ci biir fatxu googu de wal fatxu wa raayta nnaasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajan yonentu óor ko ne balaa génn àddina lii muy indi du ko woote dana mat ci kanamam ba xam ne mat na loolu fekka yàlla nga koy defal teraanga yooyu du ko wax ne xul iza jaa nasrullahi ndax bu baa dafay mel ni ñaxtu de wax na ko rek iza jaa nasrullahi wal fatxu te bët daa amul loolu lu tax te bët daa amul loolu ndax te bët daa yonent Eh, Abu Lahab nu mën ci mel bàyyi la ci yonent moo tax du ko mën a wax ne waxal waxal xasal sa baay yàlla du ko wax loolu de yàlla mooy tëb rek xasal kooko boppam ndax qul wallahu ahadun ak allahu ak ak inna ataynaka al kawsara dañoo def tanasub ñoom ñaar lu leen defee tanasub mooy lan mooy <clears throat> inna ataynaka al kawsara yàlla daf koo wàcce ngir tontul yonent yàlla muhammad luñ ko kas ne ko amoo doom bon booy dee rek sa mbit mi yeex na yow yàlla yërëmu la yow yàlla bëggu la bon sa ngirti yëpp dafay jeex su ko defee nag yàlla dal di jóg di tontul yonent yàlla muhammad lim koy tontool mooy mu may ko inna aataynaaka alkawsara muy may goo xam ne may gu bëri may gu yaatu goo xam ne lu nekkan ci wax nañ ne al alkawsara benn déeg bu nekk ci aljanna ci àla ci aljanna wala ñu ne aljan wala kawsara mooy alquran wala kawsara mooy yónun ci yàlla muhammad yónni gi ko yàlla yónni mooy kawsara wala kawsara mooy alquran lépp lu ñu wax rek mën naa firi kawsara waaye itam ëpp na loolu de ndax li ko ëppal loolu mooy ne yónnant su fekkee yónnant gi la mooy kawsara yónnant xam na ne bon loolu du ko du may gu ko bett su fekkee mooy alquran yónnant xam na alquran du may gu ko bett su fekkee eh, lislaam la yónnant xam na lislaam bon du may gu ko bett bon may gi koy bett nag mooy goo xam ne gu bees tàkk la moom xam koo nekkutoon ci xelam mooy naxar ba nga xam ne mooy sa aljanna de moo tax ba mu wàccee yónnant dafa muuñ daldi ne kontaan ne yàlla may na ma benn naxaru ci aljanna ne meew ndoxam ma moo gën a weex meew euh, ndoxam ma moo gën a weex meew moo daq lem ñu ngi ko ñu ngi ko wërale zabarjet ay goblet yoo xam ne waxtu nekk rek hurusa zabarjet ak hurusa lu'lu ñoo wër gob ñoo wër ñoo wër euh, euh, déeg boobu de mu ne déeg boobu rek mooy loo xam ne inna ataynaaka mooy loo xam ne bees na yonent gis na ko muy moom de waaye bu du loolu yonent yàlla may na ko lu bëree bare bëree bëri bokk na ci lu bëri loolu mooy jotaay bii ak weer wii yu nekk ay jullit yu bëri moo tax benn tubaab mustashriq mu ne cey yonent moo doy waar man ngi ca bàmmeelam ba ba pare dem ngi jiite ba léegi nit ba léegi mi ngi jiite ay milliards ay millions yi millions nit mu ne loolu yonent rek moom rek la ko yàlla may de ndax moom la yàlla may inna ataynaka al kawsara mu ne xul waxal ne huwa naka luy mbit naka luy mbit tey mbit allahu yàlla ahadun kenn la de am na benn mufassir bu bees di firi loolu mu ne qul wallahu ahadun yow nit ki yaa ko war a wax sa bopp du yonent moo la koy wax qul wallahu ahadun قل والله أحد في نفسي قل والله أحد في أفكاري قل والlahu ahadun ci samay xalaat ak ci sama bakkan ak ci sama roxo qul wallahu ahadun ci samay jëf qul wallahu ahadun ci samay yaakaar qul wallahu ahadun ci sama mbëgg ci ci li ma bëgg qul wallahu ahadun ci samay jubluwaay qul wallahu ahadun ci suma damir qul wallahu ahadun ci sama pas-pas loolu mooy qul wallahu ahadun pour waye do ñu rek dañu waxal ne qul wallahu ahadun rek qul wallahu ahadun jeexna nga foog ne lool la déedéet ba legi laye ji yow lay waxat yow ci sa bop lay waxat ne la waxal qul wallahu ahadun fi nafsi qul wallahu ahadun ci sama xol qul wallahu ahadun ci sama roho qul wallahu ahadun ci sama ñeuf sama te kay yeb ma ngi wax qul wallahu ahadun qul wallahu ahadun buñ la waxee bu ëllëgee looy def nga ne qul wallahu ahadun ndax xamoo looy def yàlla moo xam ne looy def looy loo bëgg a am nga ne qul wallahu ahadun lépp lu lu luñ la wax rek tontu bi mooy qul wallahu ahadun looy def suba qul wallahu ahadun ndax man mënumaa def yàlla mooy def lu ma yàlla di def lee suba loolu moo am bon nag qul wallahu ahadun rek mooy tey moom lay xaar suba moom lay xaar àllaaxira gëm a jëm xaruma leneen de lu dut qul wallahu ahadun su ko defee sellal yàlla ci sama bopp de ay firikat yu bees itam ñooy dugg di bëgg firi alquran di ko gisee façon gu gisin boobu waaye itam wax la boo xam ne itam bu jubla de ndax da ngay jo joyal sa mbir yépp jëmee ko ci yàlla say bëgg-bëggeeg say tànn nag lu nekk rek yaa ko yaa ngi ko tànn jëmale ko ci yàlla yàlla ngay bàyyi yàlla moo lay tànnal yàlla moo lay amal yàlla moo lay may yàlla moo lay ñàkkal yow ci sa bopp boo seetee sa bopp da ngay gis ne dëgg-dëgg amoo amaay boo xam ne jar na ngay sukkandiku ci sa bopp gannaaw amoo amaay boo xam ne jar na ngay sukkandiku sa bopp astama keneen waaye doomu aadama jafe-jafe bii ñu ne gouvernement bi moo jafe déedéet waxal la qul wallahu ahadun rek ndax yep ci loxo yàlla la nekk de bu ko neexee mu yomb léegi bu ko neexee mu jafe léegi su fekkee mbir mi am na ay tiis tiis ñu ne mbooloo sàngam ñoo ko def mbooloo sàngam ñoo ko def loolu réer la de ndax da ngay jox nit doole yoo xam ne amu ko waaye waxal rek ne qul wallahu ahadun boo waxee qul wallahu ahadun nga xam am nga sukkandiku waaye loolu waaye boo xam ne kenn mënu laa za zaade waaye nag su fekkee yaa ngi lu nekk yaa ngi ci yaakaar ci lu dul yàlla yaa ngi yaakaar nit yaa ngi yaakaar borom alal yaa ngi yaakaar borom pal yaa ngi yaakaar borom daraja yow yaak moom yëpp yow matoo yow yow amoo jëmalewoo sa yaakaar fenn ndax moom itam mi ngi ko jëmale moom itam moo la gën a xam ne amut ya amut lu mu la fajalee sa yaakaar de yàlla rek moo la mën a fajal sa yaakaar te yàlla buy def amut sabab amut sabab amut dara boo tax ma def ko ndax jàng nañ loolu yëpp ci alquran lu lu lu leer naññi da ngay gis nit ko xamne ma nga genn ma nga dem France ma nga dem amerique ma nga dem fu nek di uti alal ba muy dem bayyi ben mbokam bo xamne ne mu dara mu ñew fekk yalla may nak alal gannaaw moom mu ñew ak ay loxoy kese bo nak yalla buy may tabaxu ko ci sabab daf koy may rek parce que mom la na mom la nam mu may mu may la su fekke yalla mo lay may ndax ya am xam-xam da nga gis ñu la upp xam-xam fuuf gën la bari xam-xam fuuf te amuñ dara yàlla mayu leen dara ku la ku la dàq kër kër yi da nga gis ku la dàq kër yi fuuf lu nekk mu dugg ci ngir ut alal nga gis koo xam ne nelaw ci biir nelaw lañ koy fekk rek jox ko alal ju bëri yaa ko doon sa dañ la koo may nangam ak nangam loolu yëpp am na bon yàlla li muy def tabaxu ko ci sabab mu ngi ko tabax ci na mën a mam man maa am kattan maay def kenn dimbalewuma man maay dimbale moo tax yàlla dëgg na nag teural la ñu ay asbaab ne la ngaamu len ci de len ko def bay len ndax ngeen am lu ngeen dundé waye ndax bay deug deug def ko tax nañu am lu dundé wala deet ndax man nañu bay dem ji nawet bi baxut ndox amut bu boba loy noy def noy dundé su ko defé bon sabab sabab bi da ngay sabab lu rek te bul yaakaar ne sabab bi moma may yalla moma may ndax gis nañu sabab lu bataay amun amuñ dara gis ñoo xam ne sabab lu dara yàlla may leen lu nekk bon nag yàlla amul sabab ci li muy def waaye nag comme gannaaw ay nit lañ mindeef la ñu nekk ci àddina bi di am ay xel ñàkk am ay xel am ay namm-namm ala fokk mu tegal ñu loo xam ne la ngaamu leen ci lii liggéey leen di nawet bu ñëwee bàyyi leen euh, commerçant marché bango yéen ñëpp dem leen sabab waaye bu leen foog ne nag sabab lu jooju moo leen di may man yàlla maa leen di may de loolu lu la da lu xew rek waxal qul wallahu ahadun yàlla rek moo fi nekk mooy mooy borom léegi mooy borom suba gii di ñëw moo doon borom démb ji nga xam ne romb nañu mooy borom ëllëg àllaaxira yi dañ jëm te ñu ñëpp ñu ñi ragal ko ñi weddi ñi gëm ko ñi ragal ko mu ne nanga wax qul huwa luy mbit tey mbit allahu yàlla ahadun kenn la laaye jàngoo laaye ju yëkk jàngoo mu ngi toggaloo ci ñetti baat ñetti baat yu njëkk yi mooy xul xul ala nga dugal ko ci laay jàng ko ndax noonu la ko yàlla wàccee yonente sañu cee dindi dara ndax su fekkoon ne sañ na cee dindi dara jarut muy wax xul na wax rek wallahu ahadun su may oo sama xale ne ko demal ma ci diw waxal ma ko nàngam ak nangam ak nangam bu demee du ñëw naan ko sama bàyyi nee na naa la wax nangam dafay wax rek li ko li mu ko yónni ndax boobaa waxi ay nit rek la waaye nag gannaaw yàlla moo la wax demal wax li la yàlla wax rek waxal qul huwa allaahu ahadun qul huwa ahadun jooju nag mu ne ñetti ba ñetti maqaamaa ngóob huwa laahu ahadun huwa boo ko waxee rek mooy maqaama li nga xam ne moo gën a kawe ci maqaama dox jëm ci yàlla ndax lan huwa boo ko gisee baat boobu mu ngi toggaloo ci zahir ak ci baatin mu ngi toggaloo ci lu nëbbu ak lu feeñ lu nëbbu li mooy lan mooy hu ci biir la nekk hu ci biir la nekk wa ci kaw la nekk su ko defee boo waxee hu mooy sa biir yépp jébbal nga ko jëmee ko yàlla muy sa biir yëpp jëbal nga ko jëmee ci yàlla nga wax wa sa mbir yëpp ci biti jox nga ko yàlla soo waxee hu sa zahir sa batin mu ngi tudd yàlla ba moo tax boo waxee wa wa qul huwa wa gis nga maftuux dañ ko mas mas ak fatha mas gi nekk ci kaw su ko defee boo waxee huwa yaa ngi am fatxu yaa ngi am yëkkati ku de ndax mas gi mas ak kaw la te fatxa lañ ko tuddee ndax dafay ubbi su ko defee am nga ubbeeku de su ko defee bon am na ñoo xam ne foofu mooy seen maqaama bu ñu waxee huwa rek jeex na amatuñ dara luñ ciy teg yàlla rek moo fa nekk yàlla rek yàlla rek moo fa nekk de am na ñoo xam ne nag ala foog nga leeralal leen tuuti mooy nga ne leen allahu allahu mooy yàlla su ko defee ñoom tamit loolu mooy seen maqaama ala foog nga wax huwa ah huwa lan nga ne allah bu ko defee seen xel dal di dal dal ñu xam ñu xam de su ko defee beneen laaya bi ñëw beneen baat bi ñëw allahu moom mooy kan allah allah mooy kan mu ne la ahadun kenn la yàlla mooy kenn koo xam ne amul dara amul dara lu niroo moom de laysa <coughs> ka mislihi shay'un wa huwa samiul yàlla wax na allahu ahadun yàlla kenn la ahadun ci waxi arab mooy kenn koo xam ne mënta am lenn loo xam ne mënta am ñaareel kenn koo xam ne mënta am ñaareel ahadun am na waaxid am na waaye waaxid boo ko waxee waaxid mën ngaa wax isnayni salaasa arba waaye ahadun moom boo ko waxee munoo cee teg isnayni munoo cee teg salaasa moom rek la ahadun bu ko defee ahadun mu ngi bàyyi ko ci waxada ji sëri wéetal yàlla waaye wéetal goo xam ne amul dara lu wéetalee yàlla noonu ndax boo demee allahu ahadun mooy wéetal na yàlla ci jëmmam allahu wahidun mooy jé wéetal na yàlla ci bokkaale ne yàlla amul bokkaale de allahu ahadun dàq la wax na ne nag ahadun muy dàq goo nakiraal ko nakira goo xam ne te yàlla maarifa la allahu maarifa la ñu teg ci ahadun mu nekk nakira su ko defee loolu ci nuxaatu yi danañ ci gis ne ahadun maarifa kenn toftal nakira waaye yàlla def na ko waaye nakira gii nag dafa nekk nakira goo xam dafa nekk nakira ba mujj nekk maarifa ndax lan mooy ne yàlla kenn la kenn waayu yàlla gi sew naa sew a sew a sew a sew a sew ba nga xam ne kenn mënu koo xam ndax boo bëggoon a xam yàlla yàlla wéet na wéetaay boo xam ne boo ko bëggoon a wéetal mën ngaa dem ci wéetaay boobu ba yow dootoo fa nekkati de dootoo fa nekkati su ko defee bon bu ñu waxee ahadun dañ ci nekk ma dafa nekk maarifa joo xam ne ahadun la waaye xamee nañ ci ne yàlla moomu xam ko xam bu mat sëkk loolu mënta nekk de li mënta nekk li mën a nekk daal mooy yàlla moo xam yàlla ci boppam yàlla moo xam yàlla ndax su fekkee ne da wax ne da ngay wéetal yàlla man damay wéetal yàlla bu boobaa noo koy wéetale yow noo koy wéetale ndax da wax ne yàlla kenn la bu boobaa yow tamit yaa ngi taxaw di wax na yàlla kenn la bu boobaa ñaaraan fa jeex na bon nag loolu du wéetal yàlla wéetal yàlla mooy jeex takk takk takk ba nga xam ne allahu waxidu zaatahu bi zaatihi waaye amul leneen lu fa nekk nii dafay wéetal yàlla de ndax boo fa nekkee rek yàlla nga fa yow ak ak maa maa ngi wax ne yàlla kenn la ak yàlla bu ko defee ñett nekk fa te loolu du wéetal yàlla rek yàlla rek mooy wéetal boppam ci boppam su ko defee nag suuf yanke yi nga xam ne àgg nañ ba gis ne dara nekku fi lu nit di euh, dëgërloo di ko jàpp di ko màggalee lu dul yàlla moo tax suuf yanke yi ñoom gisuñ ci seen bopp dara dañoo gis ne dara amut dara nekku fi dara la laa moo mawjuda illallah yàlla rek moo fi nekk leneen lu dul moom nekkam gi mi ngi taxaw ca nekk nekk ak yàlla gi su nekk ak yàlla gi nekkutoon bon sa nekk googu di nekk sa nekk googu nga nekk itam amu ci dara dara dara loo xam ne yow mën nga koo def ci sa bopp de li ngay def yépp yàlla moo la koy defal yàlla moo lay juddul yàlla moo lay bind moo lay wërsëgal moo lay lekkloo moo lay naanloo moo lay dundal moo lay defal lépp loo xam ne moom ngay sàkku yàlla ko defal yàlla moomu rek mooy ki nga xam ne moom moo mën a wéetal boppam de waaye amul benn jaam boo xam ne mën ngaa wéetal sa bopp taxaw fële naan allahu ahadun taxut nga wéetal yàlla ndax bu boobaa yaa ngi fi yàlla ngi fi ahadun fi te loolu du wéetal yàlla de moo tax yàlla rek moo mën a wéetal yàlla nëkkire ji itam dafa doon nëkkire yoo xam ne dafa mujj soppeeku fa ndax ñëpp xam nañ ne yàlla kenn la ahadun nag boo ko waxee mënoo cee génn isnayni boo waxee waaxidun mën nga cee génne is isnayni wa salaasa ah? ah moo tax ahadun kenn rek la ahadun nag ci gannaaw dàq rek lay ñëw yaa nisa annabii lastunna ka ahadin laysa biddaari ahadun gannaaw nëf yi rek lay ñëw su fekkee nag léegi ñëw na fii te ñëwut ci gannaaw nëf yu ahadun waaye ahadun dafa àgg ci dàq ci dàq ci dàq ci ci wéetal yàlla wéetal wéetal gu sew a sew sew sew goo xam ne dafa mel ni dàq nga leneen dàq nga leneen lu dut lu dut yàlla lu nekk dàq nga ko ba mu jeex tàkk moo tax ahadu ñëw amee na maanaam nakira waaye maarifa la waaye amee na itam maanaam dàq dàq na dàq na dàq na ba nga xam ne leneen lu dut yàlla mënta nekk ci moom de allahu yàlla asamadu mooma de kuñ jublu ci mboole yi suñ yaakaar de lépp luñ yaakaar yàlla rek lañ ci yaakaar allahu yàlla asamadu mooma de kuñ jublu de ci mboolem suñuy sàkku teef yépp ci yàlla rek lañ ko jëmale waa asamaan ak waa suuf ak ñépp yàlla lañ jublu ci seen sàkku teef waaye am na benn giskat mu ne boo demee turu allahu baamu na ci alxuraan ñaari junne yoon ak ñeenti téeméer yoon ak ñaar fukk ak ñeent turu yàlla boobu moom la indi fii ci woppu saar wi ba pare teg ci samadu benn yoon la wàcc ci alquran samadu benn yoon la wàcc ci alquran rek waaye lu dul loolu yëpp eh, turu yàlla yëpp def na tikraar gafuur rahim bëri na lu wàcc ci alquran waaye du benn rek la wàcc ci alquran lu waral loolu ndax loo gis ci àddina dafa am originalité ak loo xam ne dafay nekk noonu rek boo demee mboolem turu yàlla yépp samadu mooy bi nga xam ne moo ci gën a cosaan ndax lépp luy jóg rek lépp luy jóg ci samadu rek ngay mujj daanu ci sabadu rek ngay mujj àgg ci sabadu ngay mujj ci sama samadu ngay mujj jëfandikoo loolu moo tax samadu moo gën a moo gën lu nekk lu dul samadu rek mën naa daanu tur yi yi nga xam ne yàlla may na ko ñu koy dundee ci àddina bi yëpp bu àddina bi jeexee nekkatu fi waaye samadu nag moom nga xam ne sukkandiku waaye la cosaan la loolu dara mënu koo dindi de su ko defee nag samadu googu nga xam ne yàlla mu ngi koy wax fii ci alquran mu ne allahu yàlla asamadu mooma de kuñ jublu de mu ne samadu mooy lan laaj lay yónnante ne ko samadu mooy lan mu ne ko samadu mooy loo xam ne amul maa laa jëw fa lahoo mooy loo xam ne amul biir de ndax su amoon biir mun naa am am yuy sosu ca biir ba bu ko defee yàlla amul jëw amul jëw fu amul dara lu nekk ci biir loo xam ne taxalxul mën na saa am amee moo tax dafa tëju rek mel ni aw weñ weñ weñ bu tëju noonu la mel dara mënta dugg ci biiram te itam luy génn nekku fa de loolu moo tax ñu ne allahu samadu wala samadu mooy lan mooy koo xam ne lépp lépp yëkkati yépp lépp yëkkati ay loxoom jëm ci yow lépp yëkkati ay yaakaar jëm ci yow yaay ndimbalu way dund yi yaay dimbalu way de yaay dimbalu alaxira yaay dimbalu waa alaxira de Ah, yàlla mooy samadu moo tax yàlla tudd na ñaari tur ñetti ñi juróomi tur ci saar wi ñaar yi daf ko indi mu sax ñett yi daf ko indi naf yi ndax qul huwa allahu allahu assamadu yooyu daf leen a saxal waaye am na yoo xam ne mu ngi ñëw yooyu daf leen a naf yu de te ba ay damaayir lañ mu ne lam yelit yàlla moomu jurut de ndax kenn mënta gorowanteeg moom pour di am muy am sa doom yàlla kenn kenn kenn nawle wumut ak moom pour mu mën a pour nga mën a nekk jabaram de ba mën a am ak moom doom bon yàlla jurut kenn loolu tur la ci tur yàlla yi ne du ne jurut ndax waxal nañ ko ne ah, yàlla dafa jur dàq na ko wax nañ ne walada rahmaanu walada arrahmaanu yàlla dàq na ko nii bañ koy wax ñu ngi koy wax ci fi'lu maadi yàlla mu ngi koy dàq itam di ko dàq ci fi'lu maadi mu ne lam yelit yàlla jurut kenn yàlla loolu la wax ñu ne walada rahmaanu mu ne jurut kenn ñu ne ittaxaza allaahu waladan mu ne déedéet ma taxaza allaahu min waladin wa ma kaana maahu min ilaahin yàlla jàpput kenn muy doomam jurut kenn yàlla jurut jurut jàpput kenn muy doomam ngir weddi ko waxi ñi nga xam ne dañuy wax naan yàlla moo jur yàlla moo jur Isa Mariam yàlla moo jur Isa bon isaa yàlla la Mariam yàlla la yàlla yàlla la su ko defee ñett yàlla yooyu moom lay moom la yàlla di njëkk a dàq fii ne yàlla rek moo am de mu ne lem yelit yàlla jurut kenn walam yuulat te moom itam juru kenn juru ko de yonent yàlla Isa wax nañ ne ci eh, xaaj ci eh, eh, masixiine yi wax nañ ne yàlla moo jur yonent yàlla isa am na ñu wax ne yàlla juru ko waaye daf koo doomoo daf ko fils adoptif la am na ñoo xam ne ñoom dañoo xam dañoo dañoo gis ne yàlla yàlla la isa yàlla la ruuxul qudusi yàlla la ñetti kuréel yi ñetti kuréel nasturiya wal yaqubiya wal malkaniya ku ci nekk am nga noo xam ne moom nga waxee ni lii mooy lii mooy Isa yooyu yëpp yàlla dàq na ko dàq na ko ci mattaxazallahu min waladin dàq na ko ci lem yëlit walam yuulat yàlla ju lem yëlit lem yëlit yàlla jurut kenn ba pare door a wax walam yuulat ndax e, e, weddikat yàlla yëpp yàgg na nañoo wax ne Isa yàlla la yàlla jur na am na doom waaye kenn musta wax ne yàlla dañ koo jur bon nag jarut yàlla di wax naan lam lam yuulat walam yëlit dafay wax rek lam yëlit ndax loolu lañ ko tuumaal bon nag loolu lay njëkk a weddi su ko defee nag li nga xam ne moom kenn su koo wax nag ndax mu daal nag walam yuulat moom itam kenn juru ko de ndax kuñ jurut du jur mukk laa dina kuñ jur rek yaay jur waaye kuñ jurut moom du jur waaye moo tax nag yàlla moom nee na moom kenn juru ko ah, moom itamit jurut kenn de bon li gënoon wér mooy li li jubloog suñuy xel mooy mu wax ne lam yalit walam yu lam yuulat walam yalit bu ko defee ñu xam ne al mawludu huwa allazi yalidu waaye gannaaw nag moom dafay loolu kenn su ko wax ne yàlla dañ koo jur moo tax moom la mu jëwee di de walam yakun nekkul lahu ñeel ko ku fu andeen ahadun kenn yàlla kenn melut ni moom moom rek moo yàlla kenn dëppoowut ak moom de qul a ahadun wax nañ ci ay ngëneel yoo xam ne ngëneel yu bari la qul wallahu yónnentu wax na ne sallallahu alayhi wa boo jullee sa julli yu juróom waxtu wu nekk nga jàng juróom benn qul wallahu ahadun may sa yaay sayaay sa yaay jàng juróom benn alquran juróom benni qul wallahu ahadun may sa baay yàlla bindil na la loo leen loo mus loo leen mus a def ci lu eh, lu leen naqadi ci àddina yàlla baal na la ko far na la ko defal na la may na la daraja al ibnul baar am nga jaay doom joo xam ne dafay baaxee ay waajuram su ko defee juróom benn xul wallaahu benn may sa yaay juróom benn te moom ngay njëkkee te doo ca teg sa baay moom tamit kooko defal xul wallaahu waxadun kooko mën di may rek may nga ko teraanga joo xam ne benn waaye boo xam ne giskat yi rey dafa am benn bés muy tukki romb benn digoo gis waa digoo bi yépp génn dem génn génn di dem génn dem mu taxaw xaar leen xaar leen ba waa dingoo bi dee si mu ne leen fu ngeen demoon ñu ne benn jaami yàlla moo jaar fii rek jàng qul walaahu ahadun may ñu ko moom lañ doon séddoo ji man bopp qul walaahu wi rek laa am waaye gis nga tool yeeg kër yeeg pale yi ba am yépp ci bopp qul walaahu rek ca daa ko jëlee de bon di jàngal niiw yi nga xam ne jiitu nañ di leen jàngal qul walaahu ahadun lu baax la te jàngal niiw jàng dara may ko niiw ndax loolu dana ko jot wala du ko jot ñoo am na ay waxkat ñu ne amul njëriñ waaye li gën a wóor mooy ne am na njëriñ ndax lu koy lu koy lii wone ne am na njëriñ niiw boobu ñuy tiim di jullee julli gi defu ci dara fekkewu ko defu ci dara te julli googu dana ko jëriñ bon nag lépp loo xam ne def nañ ko te yonent nee na ñetti yëf dana jëriñ ku dee sarax sadaqatul jaari ak doom joo xam ne baax na di ko di ko ñaanal ak xam-xam boo xam ne bàyyi nga ko nit ñi di ko jëriñoo mu ne loolu yëpp dana jëriñ koo xam ne dee nga ñu la koy defal da wax nañ ne itam ñaanal ku dee dana àgg ci moom ndax li ci li li li am yëpp mooy ne yow yàlla ngay contacter yàlla ngay waxat yàlla nag moom dee ki dee ci yow la dee waaye yàlla moom mi nii ci kanamam su ko defee loo ko yóbbante ci moom rek mu jottali ko ko ndax yàlla dafa tuddee boppam amiin amiin nag moom boo ko óoloo rek jox ko dana la defal la nga bëgg nga def ko de bon nag ñaanal ku dee ci alquran dëgg la dana ko jëriñ moom dana ko jëriñ de dana ko jëriñ dana la jëriñ yow mi itam ñu ko def bon nag jàngal ñu deeñ ay saar baax na ci ñoom de qul wallahu ahadun mooy saar yu nga xam ne bi alxuraan alxuraan ñetti ñetti xam-xam moo ko tax a jóg alxuraan ñetti xam-xam moo ko tax a wàcc xam-xam bu njëkk bi mooy tawxiid mooy xam-xamu tawxiid wéetal yàlla xam-xamu ñaareel bi mooy xam-xamu sharia xam-xamu ñetteel bi mooy xam-xamu xissa ak taarix yi yonent yi nga xam ne danañu ko nettali xam-xam yi nga xam ne jiitu na yëpp ngir jàngal nit ñi tawxidullahi tabaraka wa taala amul ci benn bu jotee ni qul wallahu ahadun ni ko qul wallahu ahadun defee benn benn benn xam-xam ci xam-xam yépp yi jàngale tawxid amul ci benn bu mat ni qul wallahu ahadun matee moo tax bu ko nit jàngee jàng na te al qul wallahu ahadun li fi nekk di di jàng suuratu baqara ak guddaayam bi ak jafewaayam bi boo jàngee qul wallahu ahadun rek li ci qul wallah li ci suratu bakaraak ak yëpp yàlla xamal na la ko ci qul wallahu ahadun te qul wallahu ahadun lépp loo xam ne taalibe ndongo daara lu mu ñàkk-ñàkk xel lu mu nekk-nekk mbaba daara mokkal qul wallahu ma yomb na ko de ah qul wallahu ahadun ku nekk mën na ko mokkal te dajale na mboolem xam-xam xam-xam yëpp liñ ciy ut li ñuy ut ci xam-xam yi ñuy jàng yëpp mooy bëgg a xam yàlla ndax xam yàlla boo ko defee ni ñu waxoon sànq mooy ne dugg nga aljanna te deegoo ndax aljanna mooy lan mooy lu dëppoog sa bakkan mooy lu mooy lu lu neex sa bakkan dëppoog sa xel loolu rek mooy aljanna moo tax ba aadama demee ba am sikki sàkka ca aljanna ma la wala wala taqraba hadihi shajarata ba aadama demee ba am ñaari taxawaay ndax shajaratu bi lekk war na koo lekk boobu la ñàkk aljanna aljanna ñàkk na ko wa tafiqa yaxsifaani wa min waraqil jannati aljana jeex na de waye lepp lo xamne ne sa xol d'accord na ci sa sa bakkan bëgg na ko sa xol d'accord ci lolu moy aljana de te bo jàngee qul wallahu ahadun taqoo koog mom di nga ag ci ma'rifatu billahi te bo àggee ci ma'rifatu billahi rek ag nga ci aljana yi nga xamne ne la nit ñi di sakku de ndax nit ñaar yef rek la bëgg bëgg koy dimbalé ak ko xamne bu amé lu mu dénkaane dénk ko ko te lolu bo amé ma'rifatu billahi da nga xamne ne rek mo man lolu de yàlla ngay mën a am sa yëf dénk ko mu dencal la ko yàlla ngay am soxla ñaan ko ko mu may la ko ndax loolu yëpp moo ñu ko wax ci alquran ndax moo ñu wax ne adooni astajib lakum moo ñu wax ne wa ida saalaka ibaadi anni fa inni bu ujibu daawata daay bon nag kooku mooy ah, mooy yàlla mooy borom moom rek moo mën de bon ñi bëgg a jàpp Isa wala jàpp Maryam bëgg a wax saalisu salaasatin loolu munuñ koo munuñ koo munuñ koo lay ba mat sëkk ndax ñett nu muy nekkee benn dana jafe ci xel pour mu dégg ko waaye nag ñoom am nañ nuñ koy laye waaye issa Isa mu ñuy wax ne yàlla la issa ñoom ci seen bopp boo demee ci seen téere yi dañ lay wax ne moo dàq jaamu yàlla képp kuy jaamu yàlla rek Isa la dàq jaamu yàlla ci jamonoom bon nag gannaaw moom mooy yàlla bon lu muy jaamoo yàlla man gannaaw yàlla laa lu may jaamoo yàlla lu mooy jaamoo kenn bon kay Isa yàlla ndax moo moo dàqoon na jaamu yàlla de bon yàlla rek moo eewoo li nga xam ne moom la ko qul wallaahu mel la la de yàlla kenn la ci ay ci jëmmam jëmmam dara melut ni moom laysa ka misli shay'un wa huwa samiu ay jëfam kenn melut ni moom moom rek mel noonu de ay melo ay ay ay ay melokaanam itam moom rek moo ko meloo de yëpp yàlla moo meloo noonu yàlla moo mën loolu yàlla mooy def loolu keneen ku dul yàlla mënul loolu moo tax Isa mënta nekk yàlla ndax boo demee ci ay laaye ci alquran dafa wax ne kaana yaakulaani taama kaana yaakulaani taama gannaaw nit dafay lekk di naan nit dafay lekk rek ku ne xam na lay topp ci boo lekkee ba suur ku nekk xam na la see topp de waaye nag teggi ne alquran mayut mu àgg ca waaye gannaaw ma ngay lekk ma ngay lekk di naan rek kuy lekk di naan li ngay def rek ñëpp xam nañ ko de bon nag kuy def loolu mënta nekk yàlla de yàlla yàlla rek la moom kenn mooy yàlla beneen yàlla melut ni moom beneen yàlla xamut sax bay mel ni moom dara lu mel ni moom amut yàlla rek la ñu war a jaamu de yàlla mooy mooy yàlla mooy borom borom yàlla mooy borom moo bind moo amal moo tax mu wax ci woppam ne qul huwallaahu ahadun yàlla rek la amut ge amut kenn koo xam ne ahadun nga yàlla rek mooy ahadun de ahadun ni ko waxee sànq eh, yes bu ko xam nafiw lu dul fii waaye nag nakira gi ci xam ci wéetal yàlla def cee def cee sew a sew sew ba mel ni dafa dàq leneen lu dul loolu moo tax ñu mën koo nakiraal de allahu asamadu wax na ahadun muy nakira mu bëgg cee teg samadu te loolu mënta wér naxwiyan moo tax mu baamu baatu allahu ndax man koo teg ci samadu la mu indi asamadu mooy koo xam ne laa jëw fa lahu loo xam ne amul biir ndax bu amee biir xërëng xërëng xërëng mën na caa nekk te loolu amul ci yàlla de yàlla dafa mat sëkk waaye itam yàlla samadu mooy tur bi nga xam ne mooy dafa wéet ci alquran moo tax mu am melokaan boo xam ne moom rek moo ko am ci alquran de moo ko am ci kanam turu yàlla yëpp turu yàlla yëpp dana daanu bam mu des samadu samadu moom daf fiy waaw walam yuula walam lam yadit jurut kenn yàlla jurut kenn jurut isaa jurut ku dul isaa walam yuulut kenn juru ko moom i tamit de walam yakun nekkul law ñeel ko kuf an ndend ahadun kenn yàlla amul ndend de kenn melut ni yàlla amul amul ndend amul melokaan amul kenn ku mel ni moom amul dara lu mel ni yàlla de ah, suratu alfalaki saaru falaqee makkiyatun ku jug makka la aw madaniyatun ikki ku jug madina way yamom khamsu ayatin jurom naari la la allah akbar la ilaha illa allah allahu akbar wa lillahi alhamd bismillah sosna na ma ci tudu bur arrahman arrahmaani xéewal ga aji kay aji fu ñëpp ci dunya arrahman kay aji julli dal ci alakhirah qul a'udhu bi rabbil falaqi aqul a'udhu bi rabbin naasi kooku lu ko wasal wàcc na ci waxkati mufassiruna yi nga xam ne jiitu nañ firi alquran te def nañ seeni ngóora ba mën ba mën a déggle alquran ak seen nit yi jamono ba mën leen a jegeel alquran ak maanaay alquran yi mu ne ñoom niñ firee ñaari suura yooyu mooy ne yonent yàlla muhammad dañ koo faj njabar dañ koo njabar kan moo ko njabar mooy labida ku ñuy wax labida ibn al abras benn yahud la ñu ne moo njabar yonent lu tax mu njabar ko yahud yëpp dañoo daje ñëw ci moom ne ko xam nañ ne képp kuy njabar yaa ko ko dàq ñun njabar nañ yonent ba sonn mënaluñ ko dara léegi nag dañoo bëgg ñëw ci yow nga defal ñu ci yonent loo xam ne daal danañu tàggal tàggaleeg moom dal di koy waxante waxal waxal waxal ko waxal ko bam nangu fekk am na benn xalelu yahóot bu daan liggéey ci yonant moo daan peñal karawam wala moo daan wat kooku Labida ibnu Labras gis xale boobu ne ko dama bëgg nga dimbale ma may ma ci karaw yonant dara mu ne ko mukk loolu du ma ko def mu wax wax mu ne ko du ma ko def mu génneel ko xaa won ko xaalis rek mu daal ne ko baax na dinaa la ko andil daal di dem rek fexe ba am ci karaw yonant bi dara daal di ñëw jox ko Labida ibnu Labras Labidah ibnu Labras nag daldi di jël karaw googu dal di jël lu mel ni sondeel nataal ci lu mel ni jëmmi yonant bi sallallahu alayhi sondeel ett ko ba mel ni ñu roog mu samp ko bi mu ko sampee nag dal di indi fukki pusa ak benn daldi jël istati boobu mu defar tam ñu roog di di di jàng di ëf di fas bu fasee ci benn bu fasee karaw yonante bi ci pusa bi jam ko ci benn place ci istati boobu jam ci loxo yi jam ci jëbi ba fukki poussé ba fukki poussé yeeg benn jeex ba mu jeexee yonent nee na feebar na feebar boo xam ne lu mat nee nañ fukki fan la nee nañ ñaari weer la am na ñu ko xëcc sax ba àggali ko at ne àgg mat na at waaye lu ci mën di am daal yonent njabar dugg na ko ba nga xam ne nee na dana mel ni def na dara te fekk defu ko dana mel ni itam deful dara te fekk def na ko su ko defee nag jabar boobu bi mu ko jàppee yonentu feebar lool lool ci këram ci nekk na Aysata ba mu ko defee ba feebar bi yàggee ñaari malaaka ñëw ci yonent seet si ko bi ñëwee kii toog ci tànk yonent bi kii toog ci boppam bi kenn ki laaj moroomam ne ko waaw sa lu ko dal mu ne dañ koo faj mu ne ku ko faj mu ne Labiid ibnul Abras moo ko faj mu ne ko ana paj ma mu ne ko mu ngi ko def ca biiru Arisa benn teen bu nekkoon foofu la fa lañ def paj ma bu ko defee nag yonentu oo Ali ibn Abi a eh, Ammar ibn Yasir ne leen dem leen ca teen ba lu ngeen fa fekk rek indi leen ma ñu dem dugg ca teen ba bañ demee fekk teen baa ngi soppeeku ba mel ni deret ndax njabar googu ñu ci def ñu daal dem sulli ko indi ci yonent bi ñu ko indee ci yonent fekk yàlla wàcce na laaye yi ci moom ba mu ko defee yonente ngi ñëw di jàng laaye yi laaye bu mu jàng rek benn pas-pas fecceeku benn pousse génn di ko def di ko def ba pousse yëpp jeex génn dem seen yoon bu ko defee ci la yonente amee jàmm de ba mu ko defee nag lu bay de ibnu labras ñu ne yonent ndax da nga koy rey mu ne déedéet li mu bëggoon amu ko koy jarul ma di ko rey bàyyi leen ko rek ñu daal di koy bàyyi de ba mu ko defee nag la bii de ibnu labras moomu kasaam moom la yàlla di nettali mu ne qul waxal ne awuzu dana ma muslu bi rabbil falaqi ci borom suba waxal yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem jullit ñëpp wax leen wax leen qul waxal ne awuzu dana ma muslu bi rabbil falaqi ci borom suba de maa ngi muslu yàlla ci borom suba wala maa ngi muslu yàlla ci borom fajar ju njëkk ja nga xam ne ak roxo ya ñu nga xotteekoo jógee ca eh, xadratul ala di ñëw tasaaroo ci mindeef yi de walla a'uuzu bi rabbil falaqi maa ngi mustaliku yàlla ci borom suba ndax lan ndax saaru kuluwa wi ñu jógee léegi xam nga saar yi yàlla rek lay wax dara nekku feeg moom lépp jeex na yàlla rek moo fa nekk ba mel ni dañoo xaw a nekk ci lëndëm su ko defee nag dañoo war a ñëw nag ci alam bi nga xam ne yàlla daf ñuy xamal ne yàlla dëgg la am na waaye am na leneen lu mu am amal itam de moo tax mu firee ko qul a'uuzu bi rabbil falaqi ci borom suba ñu xam ne am na lu ñëw de lu lu muy muslu nag mooy min sharri maa xalaqa lépp loo xam ne bind na ko de lépp loo xam ne yàlla bind na ko tam am xay maa ngi lay ñaan yàlla yow yàlla yàlla nag ma musal ci xay woowu de xay am na ci àddina bi waaye lu ko indi ci àddina bi te yàlla bindut xay yàlla yiw rek la bind ak mbaax ak jàmm bon xay lu ko indi ci àddina bi xay bon da ngay gis ne nit ci boppam moo indi xay ci àddina bi Einstein mos nañ koo laaj ne ko loo xam ndax xay am na mu ne déedéet xay amul ñu ne ko lii nag mu ne mi ngi mel ni jant bi rek bu ñëwee leer gi ñëw waaye bu jant bi demee rek lëndëm gi ñëw xay itam noonu rek la mel ci nit ay xay nit ki mooy fàtte boppam fàtte li nga xam ne war na koo def comme ay responsabilité ci war koo def digganteem ak société digganteem ak ay nitam waaye loolu yëpp mu fàtte ko ba bu ko fàttee rek dana def loo xam ne safaan la bu defee safaan rek safaan woowu mooy xay su ko defee nag xay woowu mën naa law mën naa tasaaroo mën naa jaar fu nekk waaye ci nit la bàyyi ko de waaye su fekkee ne nit pare na pour yéeg boppam yar boppam jox boppam ci bi nga xam ne yàlla jox na ko ko bu boobaa ay du jógee ci moom ndax yàlla bindaale wu ko ay yàlla dafa bind doomu aadama ne Ah, bind na ko mu ñëw ci àddina fekk mu ngi ñëw ak matam ak ak ak matam de bon nag xay dafa dafa dafa daf koo fekk si moom doomu aadama moom la fekk si de waaye xay moom yàlla bind ko amul ci àddina min sharri maa xalaqa ca laat lemu bind mu jógee ci lim bind yépp yàlla mu ngi muslu yàlla ci loolu de wa min sharri xaasiqin ak ci xayu lëndëm xayu guddi isa waqaba ba tadee ak lëndëmam de boo xamee ne wax na min sharri maa xalaqa te ndaxam bin laylu ci lim bind la bokk bon nag lu tax muy wax ne mu ngi muslu yàlla itam ci guddi ndax guddi daanaka pexe yu bon yi nit ñi di fexe yépp daanaka guddi lañ koy fexe yu yu yu yu bon yi ñuy def yépp daanaka guddi lañ koy faral gënal di def su ko defee itam guddi mu ngi ànd ak ay yëfam yoo xam ne moom kenn moo ànd ak moom jaan ji dox guddeeg jiit ak jànkalaar ak yooyu yëpp mën ngaa taseeg ñoom guddi ngay gën a taseeg ñoom ci bëccëg nag wuy daan fas wuy daan yooyu yëpp guddi ngay gën a taseeg moom bon nag guddi am na xay woo xam ne jar na ñu wéetal ñu ñu féet ñu féer ñu jox ko tur woo xam ne moom moo ko moom moom kenn de mu ne rawatina nag bu guddi gi demee ba lëndëm nga xam ne yëpp dal na su ko defee ci la pexe yi di ñi di sotteekoo te les pexe yu bon yi di di so di so di so di di sotti de wa min sharri nafasaati dana ma muslu ci hayu wol wol jabar ya nga xamne ngay tafli ña ngay jang di tafli ci euh, buum ya nga xamne ñu koy pass de fi lo xali ci pas pas ci ya yere ma ngi muslu yàlla itam ci jabar yi nga xamne ngay jang di tafli ci pass ya de moy labida al abras ak doomu ñu jigen bi ñewé di ci yonante sallallahu alayhi wasallam di ko labida mo ñew indi ay doomu yu jigen doomu yu jigen yi di jang di tafli di fas di jang di tafli di fas di jang di tafli ci fas mu ne wo hay njabar kat yoyu nga xamne ya ngay tafli di fas ci seni boom ak seni pokaj pokat ne man musu ci ñooñu de wa min sharri hasidin ak ci hayu aji ila xasada ba feñ ak kañaanam de maa ngi musul yàlla itam ci xaji añaan yoo xam ne dem na ba mën a ta nëbb kañaanam xañaan mooy lan ñaari baat am na ci olof xañaan ak ñee ñeetaane xañaan mooy kii li am bëgg naa mu dëñ bëgg naa mu dëñ añaane añaane naa ko bëgg bëgguma mu am ko loolu mooy añaan ñee nag mooy gis nga lu am ku baax nga ñee ko doon mébét tam nga am ko loolu moom dara nekku ci da ngay mébét rek pour waaye bëggoo loolu mu am yàlla dindi ko ki añaan nag dafa bëgg lu baax lii la yàlla may na ko dindi maanaam ku añaan daal dafa bëgg a jël place yàlla maanaam ku añaan dafa bëgg nit ñi di weddi yàlla ndax su fekkee nit ki yàlla may na ko teranga ji teranga ji tax mu fonk yàlla fonk diine di di barkelu nga bëgg loolu mu dëñ loolu bu dëñee mooy gëm gëm gëmoon yàlla ak jaamu gëm doon jaamu yàlla jeex na su ko defee kii añaan loolu la bëgg moo tax ku añaan ñaare foo ko fekk arab yi dañuy wax ne euh, añaan euh, koo xam ne waxtu wu nekk mooy tooñ te mel ni moom dañuy tooñ mooy ku añaan de waxtu woo ko gisee rek mi ngi mer waxtu woo ko gisee rek xolam a ngi tàng ndax lan ndax lii mu bëgg mu am taxu mënta am bëgg mu am rek amalu ko yàlla mooy amal su ko defee waxtu woo xamee ne da ngay añaan nit ki yàlla dafa mel ni dafay dolli alal lim ko may daf koy dolli ci sa bët yi bët bu sedd da ngay gis ne moom dafay dolleeku ndax mi ngi dolleeku noonu la wala yàllaa ko ko noonu ci sa bët yi bu ko defee nga gis ne dafay dolleeku rek ngay gën mer gën a añaan gën a soxor bu ko defee pexe mu nekk di nga ko def ngir dindi wërsëgu wu kooku nga xam ne yàlla may na ko ko te wërsëg yàlla may ko mënoo koo dindi ku añaan mi ngi mel nit koo xam ne dafa gis kuy dem mu añaanee ko jël xeer sànni ko sànni ko ko pour xaañ ko xeer wi wàññeeku buqi bëtam moom mu jël beneen sànni mu buqi beneen bëtam mu te beneen xaw ma nu mu koy jëlatee ak nu mu koy sànne waaye xeer sànni rek mu wàññeeku ci boppam mu ne loolu mooy ku añaan de waxtu wu nekk rek mi ngi gis ki nga xam ne moom la añaanee yàlla nga koy dolli te moom dolleeku dara dafay gën a perte rek loolu moo tax mu ne yàlla ngi jaam baa ngi muslu ci yàlla ci ayu ko añaan bés bu demee ba nga xam ne kañaanam feeñ na xam nga kañaan boo ko defee te nëbbu sax mun na am loru lorut kenn waaye nag su fekkee ndax loo gis rek zahir ak baatin la zahir euh, boo demee nag ba nga xam ne zahir bi mënatoo nëbb sa kañaan bu boobaa kañaan googu da nga ciy da ciy teg jëf boo ci tegee jëf rek mu indi musiba waaye nag su fekkee nëbb nga ko bàyyi ko ci sa xol rek bu ko defee loolu itam sa bët yi mën na koo génne sa bët yi mën na koo génne mu mel ne ay ñerment yu génn ci sa ci sa bët yi di dal ki nga xam ne moom la añaan mën na koo lor moo tax yàlla di wax muslu leen muslu leen yàlla ci bët muslu leen yàlla ci làmmeñ ndax loolu yëpp ay place feeñu waaye feeñ feeñalu waaye añaan la te kañaan bu feeñee rek dana lor ki nga xam ne moom nga añaane looy añaane nit nag mooy ne nit koo xam ne yàlla may na ko yàlla may na ko yàlla may na ko xam-xam yàlla may na ko juddu yàlla may na ko taar yàlla may na ko nit ñi bëgg ko góor ñi ak jigéen ñi yàlla yombalal na yépp yàlla may na ko rafet na dëgër na ku ko gis rek sopp ko yow yàlla mayu la loolu yépp nga ne lu tax yàlla may ko kii lu tax yàlla may ko ko na na ko yàlla dindi su ko defee moom yow bëggoo koo am sax waaye na ko na ko kii ñàkk rek loolu mooy añaan moom la yàlla wax ne nag foo ko fekk rek dafay lor borom ni ki benn buur boo xam ne bu daan toog dafay oo benn borom xam-xam ne ko borom xam-xam bi def na ko boo toogee rek bala ngaa wax dara woo ma rek déema dara ci sama nopp su ko defee nit ñi foog ne am nga ci man loo may laaj su ko defee waxtu buur bi toogee rek dana ko oo bu ko defee mu ñëw wax ko li koy wax loolu nag benn borom xam-xam ni moom añaanee ko ko ne daf koy yàqal loolu mu am si buur bi lu mu def dal di ñëw ci buur bi ne ko yow waji ni ko fonkee te deng nga li mu wax ci yow mu ne ko lu wax ci man mu ne sa gémmiñ gi dafa xesew mu ne man mu ne ko waaw lu la wax ci yow de mu ne ah lu may xamee ne moko wax mu ne woo ko rek bi mu génnee rek sa waji ci ci bi ne ko nañ dem suma kër ma jox nga añ bañ mu joxo ay poro ay ay yu xesew yoy mu jox ko ko mu lek lek lek bala mo paré rek bu mu ne ko demal uy bour bi mu ñew di uy ci bour bi bi mu ñëwee ci buur bi dal di jël kaalaam def ni ci bakkanam buur bi dal ne ah bon kii li ñu waxoon dëgg la ci moom fekk moom lu ko boole woon ak buur bi daf daan wax buur bi ne ko ku la def lu baax defal ko lu baax ku def lu bon bàyyeew ko bàyyeew ko ak lu bonam ku la def lu bon bàyyeew ko bàyyeew ko ak lu bonam ku la def lu baax defal ko lu baax loolu la daan wax buur bi waxtu wu nekk rek mu di ko wax buur bi de ba mu ko defee mu ne ah bon kii ba ba mu defee nii kaalam ci gémmiñam mu ne kii kat bon li mu wax dëgg la buur bi nag dafa am aada boo xam ne buy bind leetar dafay bind rek pour maye waaye bu fekkee yenn leetar yi daf koy bàyyee administration bi rek ñoom ñu bind moom dafay signé rek waaye nag su fekkee nag lu ko soxlaal la soxal dëgg-dëgg moom dana jóg bindal boppam su fekkee dafay maye dafay bindal boppam de ba mu ko defee buur bi daal di mer ba jël këyit rek bindal boppam bind ne nangam waa jooju di ñëw bu ñëwee jox la lettre bi na nga ko rendi fees ko jël mbuusam bi feesal ko ak xetax yónnee ma ko waa ji daal di bam mu ko defee jox ko alim bi alim bi génn rek te seeg ci saal bi waa ji ko booleeg buur bi hmm, dal ne ko dama may sa lettre bi mu ne ko ah, xaw ma lu ci nekk di mu ne waaye xam nga ne buur bi bu bindee dafay maye may ma lettre bi rek mu ne ko am mu daal di koy jox rek mu daal di war fasam dem ba ca gouverneur ba jox ko lettre bi gouverneur bi jàng rek dal ne acca di leen mu ne lan la mu ne loolu la buur bi wax nañ la rendi mu ne du man ñu ko man yaa ma ko indil yow rek dal di rey ba mu dee fees feesal der bi ak ak ak katax yónnee ko buur bi ba mu ko yónnee buur bi buur bi xool dal ne ah lii lan la ne nañ ko ool aalim bi ñu oo aalim bi mu ñëw mu ne ko ah, yow da ngaa mos a wax ne sama gémmiñ dafa kesew mu ne ko inna lillahi naka laay waxee loolu taxaw ma ko ci yow mu ne ko lu tax ma la ooyee nga def nii sa sa sa sa kala ci sa bakkan mu ne ko moom kii moo oon jox ma lekk lekk gi lekk gu xesaw la bala màggal lax ni ko rek mu ne naa la uy si ma ñëw bañ laa lor ci xet googu moo tax ma muur sama gémmiñ mu ne ko loolu la mu ne ko loolu rek la mu ko loo joteeg moom mu ne ko jotewu maag moom dara mu ko lii nag lan la mu ne lettre bi ko joxee damaa génn mu ne ko ko may gannaaw yow da ngay bind rek da ngay maye rek ma may ko lettre bi lii la de buur bi ne ko ku la def lu baax fay ko lu baax ku la def lu bon baye ko lu bonam de mune lolu moy moy ay ay baxut da fay lor fay dam société da fay yak lo ne lu warona a defaru léegi kañaan mën na koo tardeel bam dem dewel kañaan wax yakalante te li ngay def yeb defoko pour yalla defoko pour ce peuple Dang nga koy def rek parce que da ngaa añaan kii warta am lii warta am rek moo nga di def loolu loolu añaan la loolu la yàlla wax jaam jaamam yi ak muhammad sallallahu alaihi wasallam nako ne ko na ci muslu yàlla na nga muslu yàlla ci xayu guddi boo demee ba nga xam guddi gi lendam gi tat na nga xay na nga muslu yàlla ci xayu njabarkat yi de ndax waxtu woo xamee ne nañ ngir di def seeni euh, njabar ñaanal yàlla mu musal la ci ñooñu de na ñaan yàlla itam na yàlla musal ci xayu koo xam ne dafa añaan su fekkee dafa añaan rek em ci denc ko ci boppam loolu dara loolu boppam rek lay lor waaye nag isa xasada bu demee ba feeñal kañaan gi nag mënatu koo téye mu ne kooku itam yow yàlla yàlla ma yàlla musal ci moom de sooratu naasi saaru nit ñi makkiyatun ko jóg makka la aw madaniyatin ikki ku yug madina waye moom surtout ayatin juróom benn laa yàlla allahu akbar laa ilaha illallah allahu akbar wa lillahi alhamd bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd buur arrahmaani buur bay aji xewal bi neefun yëpp ci dunya arrahimi ka aji xewal julli daal ci àlaxira qul waxal yow yonent yàlla muhammad ba tey ci qul yooyu la auzu dana ma muslu bi rabbi naasi ci aji bi ci borom mbindeef yi nga xam ne moo leen bind de ci borom mbindeef bi nit ñi ci borom nit ñi ci borom nit ñi aji bind seen de maa ngi muslu yàlla ki nga xam maa ngi muslu yàlla borom mbindeef yi borom borom mbindeef yi te moom leen de te bind leen de wax na bi rabbi naasi nit ñi rek nit ñi mel ni nit ñi la tudd daf leen a tudd rek pour teral leen waaye mu ngi ci jublu lépp loo xam ne bind na ko. yalla yonent yonent mu mu ngi muslu ci lolu malikin nasi, ma ngi muslu ci aji mom ni ñep moy eh, mom ni ñep ilahi nasi kay buri kay yalla ni ñep ma ngi muslu ci lan gis nga waxna qul a'udhu bi rabbin nas nga do ma, dama deug deug da fay jaar ci ñetti marhala marhala ndaw marhala waxambaane ak marhala magadde marhala ndaw lu ci doomu aadama soxla mooy yar daara yi ak école yi ñu nekk cee jàng jàng jàng jàng ba génn nekk ay waxambaane bu ñu génnee nekk waxambaane fi mu ne dooley waxambaane ak seen kattan ak seen nangam ak nangam su amut lu ko awale yoon dafay dana dana métti dana gën a métti su ko defee nag bu boobaa lan moo baax ci doomu aadama waxtu woowu mooy mu am buur buur boo xam ne tëralal na ko ay yoon tëralal na ko ay loi ndax mu mën koo freiner bés boo xamee ni mi ngi bëgg génn euh, euh, mu ngi mu ngi bëgg a génn yoon su ko defee waxtu woowa lu waxtu woowa buur la soxla boo xam ne dana tëral ci kawam yoon su ko defee nag waxambaane yi ak euh, yu yu yu yëpp waxambaane yëpp ak nuñ mën ci mel yëg nañ ne am nañ buur boo xam ne buñ génnee yoon rek mu jëflante kook ñoom su ko defee dana wattandiku waxtu woowu waxtu woowu doomu aadama buur lay soxla ilaahi naasi yàllaay nit ñi am na nag at yoo xam ne ak nga ca ni suñu at yi fi ne yàlla rek nga soxla ndax yàlla rek moo la mën a defal li nga bëgg de ngone dem na waxambaane dem na doole dem na jeex na c'est fini dara nekkatu fi loo xam ne yaakaar nga ko ëllëg loo xam ne di nga ci mën a defaat sa bakkan yàlla rek bu ko defee nag nga daw jublu ci yàlla nga daw jublu ci yàlla su ko defee yow jaar nga ci tarbiya ndax jaar nga ci tarbiya jaar nga ci daara jaar nga ci école jaar nga ci sëriñ yar nañ la defar nañ la am nga buur boo xam ne tëral nañ la ay loi ba kenn du tooñ kenn ñépp ku ku tooñ ku tooñ rek loi dal ci sa kaw ku jalgati rek loi dal ci sa kaw léegi nak lolu yëpp jeexna mak ñewna ñëw na bi jege dara de sewul nak yalla rek nga am su ko defé nak waxtu woy tam yalla wax na ne man yalla ma ngi ni de ñett yëpp yalla ngi ci téw ak yow de mi ngi ci téw ak yow goné nga mi ngi ci téw ak yow waxambaane nga mi ngi téw ak yow itam magat mo xam yalla nga soxla de lu moy muslu ci yalla nak ci ñetti turam yoyu ila nasi ilahin ma ah, rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi ñetti turi yàlla lan lay muslu ci loolu min sharril waswaasi ci jax-jaxal ak seytaane maa ngi muslu yàlla ci jax-jaxal ak seytaane mi nga xam ne waxtu wu nekk rek mi ngi yegg mi ngi yegg doomu seytaane ak doomu aadama yàlla rek mooy dimbale doomu aadama musal ko ci seytaane waaye seytaane du bàyyi doomaadama mukk doomu aadama ji foog ne moom la seytaane bàyyi kooku rek la seytaane di topp doomu aadama ji di dem ca jumaa ji di julli tàkkusaan toog wasifa kooku la seytaane topp waaye ka nekk ca bistro ba ba pare oorut yëgut li xew kooku seytaane pare na ci moom am amul ci moom benn soxla ah moom moo foog ne seytaane am na ci moom soxla seytaane seytaane nit ñu baax ñi la soxla soxlawut ay bàndee ki nit ñu baax ba pare ñooñ la bëgg a soxla de bu ko defee seytaane ci jumaa yi lay dem ak jàkka yi ak géewi sikkar yi di jax-jaxal nit ñi éewi ak da ngay téye sa kaamil sax di jàng seytaane dugal ci sa xel loo xam ne yépp da ngay xam ne seytaane la waaye yonent nee na bu la loolu dalee itam bul faale continuer rek sa jàng boo julli saytaan ñëw jax-jaxal la bul faale continuer sa julli boo julli ndax rukkoo naa ndax sujjóot naa ndax sujjóoti ñaareel bi def naa ko loolu yëpp saytaane la mu ne bul faale continuer sa julli rek lu la fekk rek defal loolu ndax saytaane moo la bëgg a yàqal te boo ko uyoo rek nangu nangul nga ko boo ndax julli ndax def naa rakka ñaareel na ndax def naa sujjóotu ñaareel bon nag naa ko defaat uyu nga saytaane boo utee saytaane rek jox nga ko li nga xam ne moom lay bëgg ci yow moo tax yoonatu mu ne bul faale continuer sa julli rek boo paree nga def sa ñaari rakka baada wala qabla seytaane soosu nag moom la yàlla di moom la moom moo mooy muslu ci ci la yàlla di ci la yàlla wax nit ñi ne nañ muslu ci moom de gis nga fii fële ca qul a'uuzu bi rabbil falaq qul a'uuzu bi rabbil falaq benn ya benn benn benn yàlla rek la benn tur yàlla rek la woo rabbil falaq mais seetal mu ci ñaan yëpp min sharri ma xalaqa ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد hasada سوخلا nga ñane ko ben tour bi nak ñetti tour nga ñane ko ben soxla rek bon nga xamne bakkat yek nit yek yep setané mo lu nit yàqule rek setané moko ko yakal ak ak ak top bakanam ndax doom aadama bakanam dafa reey ci mom doomu adama dafa rëy ci boppam teg boppam ne lu nekk la maa gën maay lii maay lii maay borom xam-xam maay borom alal maay kilifa gi maa jiite yooyu yëpp ay bakkan la yoo xam ne dafay nax doomu aadama bu ko doomu aadama naxe bu ko doomu aadama nekkee woo te sàmmut yàlla ci diggante mën naa mën naa juum de maay kilifa mbooloo mi d'accord waaye nag nooy kilifa mbooloo mi loolu sa digganteeg yàlla la mais du sa digganteeg ñun su ko defee nag yàlla moom nga xam ne moom ngay sàmm ci mbooloo mi yàlla moomu ëllëg moo lay yokk moo lay dëgëral waaye may kilifa rek lu ma neex ma def lu ma neex ma wax bu boobaa ñàkk nga sa kilifa ci dootu doonatoo kilifa ca yàlla bu la nit ñi ragalee dañ laa ragal rek waaye moom dootoo kilifa daanu nga yàqu nga sa yëpp yàqu na rek muy muy kilifaak àddina muy kilifaak diine muy kilifaak a muy président muy buur ñoom ñëpp bu ñu demee ba gis ne rek seen bopp lañ seen bopp bu ñu gisee seen bopp rek seen yëpp daanu na ca yàlla bu ko defee nag li ci des àddina rek la te àddina moom jaru ko yàggut de su ko defee wax na ne juróom ñetti tur yàlla yoo xam ne mu ngi ko jëfandikoo ngir ñaan yàlla benn soxla rek fii ñetti soxla nga ñaan ñeenti soxla fii benn soxla rek ngay ñaan ndax soxla boobu mooy bi nga xam ne moo gën a mën a yàq doomu aadama mooy seytaane wasu wasuwaasil xannaasi seytaane seytaane xiir na nit ci lu nekk xiir na nit ci rey baayam xiir na nit ci rey yaayam xiir na nit ci rey jabaram xiir na nit ci rey xaritam xiir na nit ci def nit lu nekk ci lu bon seytaane xiir na nit mu def ko su ko defee seytaane soosu di xiir nit kooku ba tey seytaane mi ngi fi di xiir nit ci loo xam ne dara baaxut ci dara baaxut ci moom mi ngi koy xiir su ko defee nag seytaane lu mu am am doole am na ku ko ëpp doole de ki ko ëpp doole mooy ki nga xam ne moo ko bind moo yàlla moo tax benn borom xam-xam ñëw mu ne ko bu la seytaane bu la seytaane songu seen nooy def mu ne dama koy dàq mu ne ko boo ko dàqee mu sangaat la mu ne ma dàqaat ko mu ne ko boo ko sang boo ko saan boo ko dàqatee mu ñëwaat mu ne ko ma dàqaat ko mu ko mënoo mënoo dàq seytaane waaye seytaane boo ko bëggee dàq mu ngi mel ni ku am xajam xajam borom xaj bu la xaj bi di sonnal dama rek làqu borom xaj bi xaj bi bàyyi la léegi sax nekk sa xarit waaye nag su fekkee nag ne damay jéem a jëflante xaj bi dana métti de naka noonu itam seytaane boo fi nekk da ngay jëflanteeg moom ak jéejanteeg moom dana métti te mën mënuloo ko dara waaye nag boo booy xeexee nag dawal làqu ji ci nga xam ne mooy borom seytaane waxal aoudu billahi min asheytaani rajim xis nii man daxalaha wa tuddal yàlla innahu xis nii man daxalaha amina makri mooy mooy mooy mooy xisnu bi nga xam ne moo lay musal waxal aoudu billahi min asheytaani rajim yàlla dina la musal ci seytaane waaye seytaane nag ñaar la seytaane nit ak seytaane jinni ak seytaane jinne shayatinul insi wal jinni yuuxi baaduhum ila baadin zuxrufal qawli gururan seytaane ñaari xaaj la seytaane nit boo xam ne nit la ak seytaane boo xam ne seytaane seytaane la seytaane nit mom. Lo def rek pour muslu ci moom moom itamit mu def ko boo ne awuzu billahi mina seytaani rajim mu ne awuzu billahi mina seytaani rajim loo def rek mu def ko bu ko defee eh, bu boobaa kenn mënaloo ko dara yow mënaloo ko dara yàlla rek moo la mun a ci moom seytaane nit ñi nag ak seytaane jinne yi dañoo jokkalantoo seytaane jinne yi ñooy ñooy dicte nit ñi li nga xam ne ñoom lañ war a def su ko defee dicte lu nekk nag dañ leen di dicte façon xam-xam bu nekk dañ leen ko dicte roman yeeg euh, euh, film yeeg yëpp dicte seytaane rek la ak philosophie yu ya nga xam ne daf lay soril yàlla philosophie bu la soril yàlla rek seytaane moo ko dicté yàlla amut yàlla amut dëgg-dëgg wax la boo xam ne toggoowut ah amut fu jokkalantewut ne yàlla ba pare ne amut bon lu fi indi tur bi bon kay yàlla am na waaye jéema la waxee ne leen de lu amut du am tur yàlla amut loolu du wax bu jub du wax bu du wax bu logique amut amut kii amut sa euh, suur na suur waaye ndax yàlla amut kenn xamul lu muy tekki ndax wax nga yàlla ba pare door a wax ne amul kenn kenn mënulaa dégg kenn mënut a dégg li ngay wax de waaye nag yow mën nga koo déggal sa bopp yow mi ko wax mën nga koo déggal sa bopp de mu ne seytaane nit nag moom loo def pour muslu ci seytaane rek seytaane seytaane boo na auzu billaahi min seytaane yàlla dimbale la ci seytaane nit nag moom loo def rek mu ànd ko def ak yow boo ne auzu billaahi min seytaane rajiim mu ne auzu billaahi min seytaane rajiim boo dem jàkka ja mu ne dem jàkka ja loo def rek mu def ko ànd ak yow waaye fekk seytaane la soo xam ne bés bu la njëkkee rek da xam ne <laughs> li diw mii rek moo ci topp de ah seytaane allazi ah, min sharri waswaasi ca ca xayu aji jax-jaxal ja alxannaasi ka dégg aji jattuwaakoon seytaane boo ne aw bu ne cax-cax-cax-cax rek nga ne auzu billahi min seytaane rajim mu daw daw fekk yaa ngi wax auzu billahi min seytaane rajim rek muy daw de alladi seytaane si nga xam ne yu was wi su dana mu jax-jaxal fii suduri naasi ci ci xoli nit ñi minal jinnati ca laala moom seytaane ay jinne la wan naasi ak seytaane nit ñi maa ngi lay ñaan lañ yàlla na yàlla mu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla musal ci ñaari seytaane yooyu seytaane nit ak seytaane jinne seytaane nit moom muslu ci moom jafe na waaye seytaane jinné nag moom boo waxee awuzu billahi mina seytaane rajim rek yàlla mën na laa musal ci moom le seytaane jinné seytaane nit ak seytaane jinné lu leen di utale seytaane jinné seytaane seytaane bu lay jax-jaxal moom daf lay indi xeeti bànneex yépp bu essayé bii mu të mu indi beneen mu të mu indi beneen mu të mu indi beneen mu të ba ba muy amee ci yow li bëgg seytaane nit nag moom ci benn bàkkat bi rek ci lay ci la lay forcé ba bés bu nekk benn bàkkat bi rek ci lay xiir ba bés bu nekk ndax bu boobaa seytaane bakkan lay doon bu ko defee sa bakkan bi lay xiir rek di ko xiir rek waaye benn bàkkaat rek lay doon boobu ci nga xamee ne loolu bàkkaan ci bakkan la waaye bàkkaati seytaane nag moom bu essayé bi baaxut mu essayé bi essayé bi baaxut mu essayé bi ba ba muy àggee ci li nga xam ne bëgg na ko ceew de loolu mooy utale seytaane nit ak seytaane jinne rek الذي سيطان سيغ خامني ووس في سودان مو جخ جخال في صدور الناس يقول نيت ني من الجنات سلام على نيت ني والناس اك نيت ني كامل بي جيخنا الحمد لله رب العالمين نيجي رامبلي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ومن يوب كامل بي نكو تيجي الناس بوغا خامني لي نيك سي ادنا بي ييب يالا نيت رك دا سي جخ تير تروم بو نكو سي لاي دو جيخ دو خاي آه، خلق الانسان في احسن تقويم يلا وخناكو في احسن السوره يلا وخناكو وخنا اولئك هم خير البريئه لول ييب يالا واخنا كو سي دوم ادم تاخ مو واخكو بون يالا اك دوم ادم رك مو سيك ميرمي سورة الفاتحة سارو فاتحة مكية كجوك مكالا سبو آيات يوم ناري لا يلا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله سوسنا ما سبا غاب شتو دبور الرحمن كاي خيول بن يف نيب شي دنيا الرحمن كاي خيول جي دال شي الاخره الحمد واخ لين ما واخ لين ما الحمد واخ لين ما الحمد قاي سنت ينت لله جي نك لا نيال يالا دي ين من ديف ييب واخ لين ما الحمد لله رب العالمين ndax yalla rek mo ayo ñu santuko ndax yalla dal santi ñent xajla cant goo xam ne yàlla moo ko sant boppam ne cant goo xam ne yàlla moo ko sant boppal ne nemal nemal nema rabbu hmm? nemal rabbu am na am na <coughs> boobu yàlla rek ci yàlla la bàyyeekoo dem ci yàlla am na cant goo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci yàlla jëm ci jaamam nemal abdu innahu awwaabun Amna na cant goo xam ne mi ngi jógee ci jaam jëm ci jaam nit ku sa morom defal teraanga nga nga gërëm ko teraanga jëm la defal yàlla ko ko may mu defal la ko bon cant googu itam yàlla rek moo ko ak cant goo xam ne cant yi mooy eh, eh, cant gi nga xam ne yàlla may na la wërsëg ah nga sant ko loolu yëpp ñeenti cant yooyu yëpp ñeenti xeeti cant yooyu yëpp yàlla moo ko moom bon fu cant bàyyeekoo rek yàlla moo ko de bon nag mu wax leen ma alhamdu xaaji cant ñent lillaahi nekk la ñeel yàlla rabbil alamin kii aji moom mindee fi de yàlla mi nga xam ne moom mindee fi yëpp moom moom cant de arrahmaani yàlla ma day aji xéewal jullit daal euh, mindeef yëpp ci àddina rahimi ko aji xéewal jullit daal ci àllaaxira de maliki mi diini borom bés penci borom bés a pay de yàlla mi nga xam ne mooy buura bés bés penci iyaaka wax leen ma ne iyaaka yow daal naabudu la ñuy jaamu de wax leen ma ne man yàlla rek ma eyoo jaamu de waaye yaakaar te yow daal nastayin la ñuy dimbali koo te itam yow la ñuy dimbali koo ci jaamu gi de ihdina yal na nga jubal ñu siraata yoon wal mustaqim wa de aji jub de yow yàlla yàlla ngi jubal yoon woo xam ne yoon wu jub de yoon wu jub la te mooy yoon wi nga xam ne moom nga tànnal nabiyina wa siddiqina wa shuhadaay wa saalihina wa xasuna ulaayka rafiqan siraata alladina ñooy ñaaña anamta xéwe nga alayhim ci ñoom غير المغضوب يدوم ني نرى عليهم تيوم موي جام يوي غا خامن كين نراولن ولا ضالين دوش تاغ ني دي ني رير دي نيغي واخ نان غير المغضوب موي نصارى اب موي يهودي داخ يالا واخ نا سي لا يس القران نغضب الله عليهم ولعنهم يالا واخ نكو سي يهودي واخ نا يتم سي نصارى ني ني رير نان بن جابي مسيح موي يالا بوبو لاي رير دي وايي fi nek ni ci adina ju ko yoyu xam-xam yu ak nangam ak nangam tuñ wax ne xayril maxdubi alayhim wala daalliina amin ñu ci yiblu yahud ak nasara parce que ñom ahlu kitab lañ te ahlul kitab yalla tag nañ leen bon nak xayril maxdubi nañ seeti ñeneen waye du yahud ak nasara am sax ñu wax ne julli ñi seen bop ñom nañ de ndax am nañu wax ne julli ñi ñom ñep julli ñi jamono bi kulluhum kafiruna dañu weddi yalla ñom lañ wara de am na ay borom xam yoo xam ne dañuy sol azar di wax loolu suratu albaqara saaru nag madaniyatun ko jóg madina la allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walilahi alhamd bismillah sos na ma sama wax ci tudd buur arrahmaani kaay ji xewal mbindaa fu ñëpp ci duniya arrahimi kaay ji xewal julli daal ci àllaaxira alif laam miim alif lam mim ya la alam mu ay xam bi muradi ci lum na mam ci alif lam mim ko kitaabu bi de tere di jang ko muhammad laa ba de sikki fi nek ci mom de mu ne téere bi nga xam ne yalla wàcc na ci muhammad mu len koy jangal amul ben sikki ne ci yalla baye ko de den mom njub la aji juble la lil muttaqina ñeel mooy mujj ñu ci ragal yalla de bobu da fay juble waye ñi muy jubal moy ñi nga xamne ñoy ñooy mujj ragal yalla de ñooñu ñoo di ñaan mu ne dañ ne ñooy ñaanal yuminuuna danañu gëm bil xay bi ci fàddu alladina ñaañu yuminuuna danañu gëm bil ghaibi ci fàddu te moy lepp lo xamne gisoko gëm ko gëm nga yalla gëm nga alakhirah gëm nga safara gëm nga aljanna gëm nga sirat gëm nga mizan loolu yëpp gëm nga ko te mu ne ñooñu nga xam ne gëm nañ loo xam ne fàdd nañ ko mu ne ñoom la nar a tagg si léegi de yooyu wa yuqimuuna te ñuy dikkee astalawaati julli yi juróom te itam waxtu julli yi juróom jotee ñu taxawee ko de wa yunfiquuna te ñuy dundal maa razaqnaahum ci la wërsëgal na leen ko te itam yàlla wàcc ci ñoom ay wërsëg ñu ci dimbale yeneen jaam yàlla yi nga xam ne seen loxo mel noonu de ñu mel noonu ulaay alladina ñaañu yumunuuna ñu gëm bi ma unzila ca la warselef na ko ilayka mu jëm ci yow yonent bi ak ñi nga xam ne gëm nañ alquran yi nga xam ne wàcce nañ ko ci yow wa ma unzila la warselef na ko min qablika ci njëkk seen ki tawraat ak linjiir woowu ñoom yuuqinuuna way hóolu nañu bil aaxirati ci àlaaxira te ñoom gëm nañ naa laaxira dana ñëw ñooñu ñooy ñan walaayka ñoo ñe la gaay alaa wu dun way nekk lañu ci ñub min rabbi mu tukkee ci borom seen boobu laay ka ñooñu rek gaay moom ñoom mu fi xamoon ñoom ma da bay taxe de allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala alhamdulilah ba pare na sëriñ baa ngi nii teew li ci aju yëpp moo koy moo koy àggale insha allah Thank you. alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin damaa xam ne diggante fii ak timis ñu ngi waaj a nodd xaw ma lan moo fi xaj lu may sant yàlla ci bi ñu yàlla mayee ñu dajee fii ci Medina Baye ci weeru koor wi dajee yi tamit ci minasatu cheikh doon def li nga xam ne mooy sunna fii ci dëkk bi mooy firi alquran loolu li ci li ci nekk yëpp xam nañ ko du ma ci dugg waaye comme yëf yi dafa xat te timis jot na ba pare da waxoon nañ ne danañ jox imaam euh, ma ne te waaw kon dañ koy dañ koy tënk yëpp rek jox ko imaam mu mu sànni ñaari baat lu mu wax rek ñu ñu tëjee ko loolu alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimu saalihaat صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد مدد الكائنات وخاتم الرسالات على آله وصحابته الخيرة الهداة الثقات من تبعهم التابعين تابعيهم بإحسان yaa yawmi diin alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ci lu njëkk ak lu mujj lépp ci lu ak lu nëbb sant yàlla itam ci bis bu màgg bi nga Cheikh Mahi Ibrahim Niass mu doon tëj firi alquran bi nga la mu jeex tey yàlla may ñun ñëpp ñu fekke ko ci jàmm sëriñ bi mu ngi toog suñu xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ñu gërëm ko ci itte ji nga xam ne def na ko ci téere yàlla bi itte bi nga xam ne def na ko ci téere yàlla bi ba déggal ko nit ñi ndax téere la boo xam ne waxtu wu nekk rek ay dégg-dégg yu bees mën na cee génn ay xam-xam yu bees mën na cee génn moo tax jamono ju nekk dañ ko soxla ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla kàttanal ko ba nga xam ne dana ko defaat beneen yoon walla dana ko defaat ay yoon yoon yoo xam ne yëpp lay ay njëriñ lay nekk ñeel mbindeef yi ñi nga xam ne noonu la ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass doon ko defee waxtu wu nekk rek bu wàccee mu ngay éegaat te waxtu bu nekk rek dana indi ay dégg-dégg yu bees yoo xam ne amutoon ci li jiitu moo tax taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw ñu ngi ñaan yàlla yàlla dëgëral ko lool yàlla dimbaleel ko boppam yàlla wattul ko boppam te jox ko li nga xam ne itam mooy bëgg-bëggam yàlla wattu sëriñ bi itam ak xalifa bi guddal fanam lool yàggal ko fi te wéral ay cëram ba nga xam ne ay seen moom yëpp dana ko mot a mottali ci jàmm te lépp fekk ñu fi ci jàmm yàlla mën na loolu yàlla na ko def lii taabal la joo xam ne benn taabal gën a koo tedd tey ci kaw suuf ñu taabale alxuraan ñu ngi ñaan yàlla mu jëriñ ñu ci jëriñ ci képp koo xam ne teew na fii lépp lu ñu fi dégg yàlla nañ ko topp yàlla nañ ko jëriñoo ci dund bi yàlla nañ ci jëriñe sax ci ñeneen ñoo xam ne danañ ñëw te egg saguñ yàlla mën na loolu yëpp yàlla na ko def li nga xam ne nag moo war mooy comme moom def na li ko war ci téere yàlla bi fexe ba déggal ko ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon ñi ci nekkutoon sax waxtu wuñ ko dégloo rek danañ ci jëriñu ay njëriñ yoo xam ne fàddoon na leen wala mës a seen kanam ku nekk na génnee addiya ñu jëmale ko ci moom mi nga xam ne moo taxawee woon tafsir bi bàyyi ay waxtoom bàyyi ay liggéeyam yépp ku nekk lu teew fi yow rek na nga ko joxe joxe ko addiya ñu jëmale ko ci moom képp ku ci joxe itam ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla fajal la say ajo yépp fajal la say soxla te yombalal la ko ba nga xam ne waxtoo ko bëgg def def ko yàlla mën na loolu yàlla na ko def amoon na